di leen jaajëfal bu baax a baax xam ngeen ni itam euh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo kenn ku nekk sa tur ak sa sant ñi ngi leen di jaajëfal xam ngeen nii président de la république itam def na benn euh, mbir mu am solo maanaam décrété day national lu man tollook ñetti fan yoo xamante ni dañuy wàcce drapeau yi ñaanal ñi nga xam ne ñoo di way dawlu yi fi jógee massawu ñi nga xam ne ñoo tëdd feebar te am ay gaañu gaañu ci mbir mi waaye itam massawu également ñi nga xamante ni ñoo yàqule ci loolu euh, ci loolu nag il ñu toog bokk waxtaane réew mi waxtaane réew mi moo waral tàllee làmp yi waxtaane réew mi moo waral ñuy xool li nga xam ni moo gën ci réew mi waa réew mi ñu indi ko te wàññi tension bi ndax bu ñu gisee président de la république jiite ñu euh, toog ba bés mu xëy ni day def fa deuil national ginnaaw bi événement yi jàllee ça veut dire tout simplement que mi ngi déglu askanam mi ngi déglu njabootam mi ngi déglu sénégalais yi te loolu la xaar ci moom moo tax ñu leen di tàllal loxo yéen sénégalais yi fu ngeen mën a nekk ngeen mën a doon ñu am un esprit de dépassement mais également ñu nekk dans euh, ñu nekk ci autour de l'essentiel autour de l'essentiel mooy lan mooy tabax Sénégal liggéey Sénégal euh, coow li nag dina bari waaye dañu fexe lu ko saafara euh, duma guddal tey damay nuyuwaat ñëpp rek jaajëfal ñëpp auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu Sud FM waa groupe Sud Communication ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax personnel sud ñi ngi leen di nuyu jël nuyoo bi teg ko ci loxol Baye Omar Gueye jaajëfal a baax itam Euh, kooku di euh, auditeurs yi nga xam auditeurs yi nga xam ni ngi topp émission bi ci waxtu wii euh, bokk également ci <coughs> émission bi waaye itam bokk ci groupe Tàlleen Lamp yi ñu ngi leen di jaajëfal waa Tàlleen Lamp yi góor ak jigéen mag ndaw fu ci waay mën a nekk ku ci waay mën a doon maa ngi laa nuyu. luy ay du jàmbat lu def waxu xam ngeen ni dégg nañu ministre de la république un ministre de la république di ministre bi nga xam ne moo yoree wàllu justice bi di Alaaji Malick Sàll <coughs> moom nag. Euh, dafa dem ca France 24 def benn déclaration <clears throat> déclaration bi mu def mooy def ni euh, ñi génnoon am na ci ay mbër yoo xam ni ñoo nekkoon ci manifestation yi ñoo nekk bokkoon ci manifestant yi loolu nag daal di frustré ñi nga xamante ni ñoo di euh, waa axlu làmb ñi nga xam ni ñooy takk ngemb di bëree ñi nga xamante ni dañ leen a xam ci làmb ji ñu nekk ay mbër kenn ci ñoom di Gris Bordeaux Euh, sunu xarit moom lañu ne moom la ñu nekkal ci ligne bi mu war a jël bokk itam indi ay leeral ci li nga xam ne am na ak li nga xam ne bëgg na ko wax sénégalais yi ñu bàyyi ko mu nuyoog senegal ak senegale yi déglu Sud FM seen rajo le choix de la différence gris gris gris bordeaux mu mel ni déggantewuñu waaye bu fekkee mi ngi ñuy dégg mën na <coughs> mën na continuer di euh, dugaat ñu xoolaat téléphone bi rek euh, ci 88 628 98 98. 33 841 22 33 moom laa téye woon ci ligne bi ndax moo nekkoon auditeur bu njëkk ñu xool ki ci topp rek euh, defe naa ne euh, ku ñëwaat ñu jël la laaj ko bëgg-bëggam laaj ko lan la ñu bëgg a wax ak lan la ñu bëgg xamal ci Sud FM seen rajo le choix de la différence euh, ñu jël la asalaamaaleykum ñu jëlaat beneen auditeur ñu jël asalaamaaleykum asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw. Gris Bordeaux. waaw mon frère mais ça va bien nakay tey. alhamdulilah. baa yaa ngi si jàmm. waaw ah, ñu ngi si jàmm naka écurie ak euh, làmb ji. waaw ah, làmb <laughs> yi moom temps yi moom gars yi kenn làmbul fenn. waaw ah, mais yi moom dëkk bi dafa taxaw ko mais alhamdulilah rek xam nga. day baax day baax. alhamdulilah comme que ñu koy. ñu ngi koy nettali ngi koy nettali waaw waaw waaw dëgg la. comme ñu koy koy nettali sant yàlla la. mais mais Gris bu fekkee ñi ngi yaa ngi yaa ngi euh, nekk sénégalais boo xamante ni bokk nga ci ñi ñi ràññee ci li ñuy def. Mhm. ngay mbër moo xamante ni actuellement yaa takk la tigre de Fass ginnaaw Mbaye Guèye ak Tafa Guèye euh, nga nekk itam euh, bokk ci ñi nga xamante ni mooy les lutteurs en activité bokk nga ci ñi yore ñi leen di waxal. Gris boo déggee benn déclaration boo xam ni. je suis président. tu es président ok euh, bu fekkee tey jii dégg nga benn benn benn benn kàddu boo xamante ni dafa jóge ci sunu ay kilifa euh, jëm ci yéen di ñi jóg di manifester ay mbër lañu bu fekkee tey gis nga manifestation bi nga dund ko ak sénégalais yépp lan nga ñu mën a wax ci manifestation yi d'abord ak li nga xam ne moom lañ yëkkati teg ko ci seen kaw. waaw bon xam nga dañ koy. parfois dañuy jël bu xew-xew amee bu bu xew-xew amee dañ koy jël avec philosophie ah. parce que à l'heure où notre pays se remet d'une semaine importante marquée des manifestations. Mmh. c'était un peu c'était c'était c'était un peu compliqué quoi. Mm-hmm. parce que parce que Sénégal dund na na une semaine yoo xam ne tey. ku tiitul woon tiit nga ah. Hmm. ku jaaxlawul woon jaaxle nga. Hmm. comprendre nga tey bu ñu ñëwee ba tey di ko nettali. Hmm. Euh, dañu war di sant yàlla. waaye bu ñu malgré événement yi. li xew-xew yi ci am yëpp mooy dafa événement yi dafa démarré. ñu cité ci ay mbër. comme si c'était les nervis. événement bi yàlla def ci ndox. des ministres de la république yëkkati ay kàddu jël jëmale ko ci mbëri comme si ñoom ñoo wàccoon ci tali bi. Hmm. li tax nag li tax nag jël ko en compte parce que mën nañu porter préjudice ci yu bëri parce que ci ci ci ci chaîne internationale la ko waxee. te tubaab du muy France 24. waaw muy France 24 te tubaab du du du du du bàyyi dara hasard. Hmm. noonu dañuy voyager dañuy dem fu nekk tey euh, ñu comprendre sax peut-être euh, dañ koy xool suñu bopp nit moom mu wax dafa doy waar trop mais li tax ñu jël ko en compte avec toute l'association mhm. jëm ci fexe ci fexe ci am jàngat taxaw ci euh, c'est juste parce que mën nañu porter préjudice ci yu bari mhm. manque de respect am na ci manque de considération malgré la pandémie, qui a impacté toute la, toutes les couches socio-professionnelles. Malgré que, xam nga yàq suñu ay activités yu bëri dañoo toog gérer li ñuy gérer comme li ñuy gëm toog xam nga. mais mhm. tey bu ministre de la république yëkkati propos yu mel noonu. Mhm. Euh, mën nañ comprendre nit kese la. mën nañ comprendre nit mën na def am na mën ak mën na am accident làmmiñ ci ay waxam. Mhm. waaye li tax ñu jël ko en compte parce que tamit structure la ba pare structure bu mag la làmb du làmb c'est notre sport national hmm. tey bu ñu ci yëkkatee kàddu yu mel noonu jëmale ko ci ñun te mu te mu te mu mën nañu yàqal lu bari te dañu am habitude di voyage am habitude di dem si ambassade di di ñaan visa hmm. te yooyu tey tubaab tubaab yi mën na ci mën na ko jël en en compte hmm. comprendre moo tax na ba pare bu bari bari bari bari bari bari nekk ci Sénégal ci àddina bi yëpp ñu xarlu ko hmm. kon tey ñun association bi nag mënuñu ko bañ a jël en compte parce que taxaw taxaw ci xool ci fan lañ ci war a jaar pour que bu euh, bañ a nekk loo xam ne tey dina ñu ay jafe-jafe ëllëg hmm. ok euh, léegi léegi euh, da ngeen a nekk ci kuréel goo xam ni hmm. mooy les lutteurs en activité di ko mbër yi nga xamante ni ñi ngi sëgg di bëri di takk ngemb mais association nationale des lutteurs du Sénégal. des lutteurs du Sénégal. ok euh, tey jii bu fekkee lu mel noonu am na. ñu bëgg jàmm dellu si ñu bëgg waxtaan am ndax gis ngeen lim leen mën a yàqal wax jooju lim leen mën a yàqal xëy na du yem rek Sénégal yaa ngi wax léegi da ngeen di génn di tukki da ngeen di génn di dem ci ambassade yi di ñaani visa mais également dangeen di génn di dox ci askan wi da di toog ci télé yi rajo yi di wax ak askan wi te mën nañ leen cee mere mën nañ leen cee jéppi te pourtant xëy na sax demeewul noonu mais ci biir événement bi mu amee gis nañu ay nit yoo xamante ni dañu nekkoon euh, ñu bëri dañ leen doon jaawaleeg ay mbër di ay xëy na sax du yéen mais ñooñu bi nga leen gisee yow lan moo nekk sa sa point de vue en tant que sénégalais. non loolu en tant que sénégalais en tant que président association de nationale des lutteurs dama ci dama ci teel a prononcé hmm. parce que dañuy am na Sénégal moom boo gisee lu jóg rek parfois ni dañ ci gis ay mal intentionné di di di di ko di ko di ko di ko am fu ñu koy féetalee. Hmm. dafa am rek Sénégal yaakaar nañ ni gros bravo gis mbër la y a des a des personnes yoo xam ne leur leur boulot c'est c'est nekk ci saal yi. ñu ëpp bëri fuuf mhm. ay videur lañ ay garde rapproché lañ. ay mhm. sécurité la ñuy liggéey te ñoo ëpp bëri fuuf événement yu mel nii parfois nii gars yi salle yi moom mooy sant comprendre. Mhm. mais tey sécurité liggéey la protection garde rapproché liggéey la waaye tey li ñu def li gis ci. ci problème bi amoon nii euh, li ñu gisoon ñooñu nerf bi yooyu doon ko def. Hmm. dafa ñaaw trop trop trop loolu du sécurité bi dara affaire euh, de euh, sale boulot la ah sale boulot. sale boulot la tey ci cité mbër yi mbër yi la dama dama jóg wax ci mais mbër new ci waaye mbër buñ ci mbër buñ ci ràññee xamee la ci nga nekk ci. jiituwaa ko dinañ la déclarer au niveau de CNG pour ñu retirer sa licence parce que loolu du parce que benn pomme de terre mën naa yàq saako pomme saako pomme de terre mhm, mhm. nga du ñu duñu du ñu nangu ñun organe bi di nekk tey nii du ñu nangu ñu nekk ci benn structure tey benn nit ñuy cité benn nit muy gàttal suñu der ñu ñëpp ñu nangu loolu ma teel ci communiqué wax askan bi yëpp mhm. ba xam ne tey ku ci nekk xam ne ni wax taxaw na ci ni ñu ci war a taxawee prononcé wu ci wax ci ne mbër bu ci bu bokk ci association de des nationales des lutteurs du Sénégal. Mhm. bu la ci déggee sa tur wala ñu am ci ay preuve yaa ngi ci biir euh, sanction jusqu'à ce ñu porte la plainte ah parce que tamit da ngay da ngay da ngay suñu réputation nga yàq. Mhm. boo amee licence boo amee licence dañ lay dañ lay topp au niveau CNG dem déclarer CNG ni kii nit la ku ñu war a sanctionné. mais en dehors en dehors de cela. Euh, ñun tey sénégalais yi xam nañ ni ñi wàccoon ci cette tali bi c'était la jeunesse jeunesse bi la. jeunesse boo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa manqué espoir jeunesse la boo xam ne dafa dafa tëju lu yàgg jeunesse la boo xam ne yaakaaram tas na ci yu bari jeunesse la boo xam ne jënd jënd jënd jënd mbënd bi pour perte espoir parce que dafa perte espoir léegi. société civile bi. Mhm. les élèves. maanaam Sénégal seize région yi nekk ci Sénégal yëpp manifestation yàgg na am mais bii mus daan soir du Sénégal depuis indépendance bi la mus am. Mhm. te yàlla rek moo ci moo ci moo ci sotti ndox bu sedd ñu ñaan yàlla nag xam nga grandeur bi nga xam ne le président de la république am na ko parce que dañu nit ñun tamit ñu def ñu ngi lay lutter ñu def ci médiation def ci communication. apaisement pour que tamit li am importance mooy tey tey pression bi nga xam ne tey euh, euh, les chefs xam nga le chefs religieux les chefs coutumiers ñëpp dañu xam nga église bi xam nga amul ku deful communication ba président dégg kàddu gi xam ne jël mbir mu teg ci suuf xam ne tey xam nga loolu grandeur la hmm. ba pare dégg nañ dégg nañ communication dégg nañ ay kàddoom après les incidents am na ni am na lu bëri bëri bëri bëri jël na leçon jël na leçon yu bëri bari bari ci événement bi mhm. am na ni les jeunes on ne est marre ci yu bëri jafe-jafe yu bëri jeune jeunesse dañ koy subir te jeunesse boobu tey ñoo wàccoon ci tali bi te am lu leen naqari am lu leen métti te li ci am important mooy le président de la République tenir na ci compte te j'espère que dina ci bàyyi xel bu baax c'est ça loolu loolu mooy importance bi mais te loolu yooyu bu amee nag le ci ay propos am tey nekk ci kàddu jëmale ko bëgg ko focaliser léegi ci ren ñuy naqari trop trop trop trop te amul ou même ñi doon mbër na mais tey loolu tey mu ngi ñu déranger ci ñun ak peuple bi parce que sénégalais yi xam nañ ñi wàccoon ci tali tey bu nekkoon les les seize régions Sénégal ñi ñi wàccoon ñëpp ay mbër lañ. Sénégal 98. d'accord mais mais Gris Bordeaux euh, bu fekkee bu fekkee gis seetaan nga toog nga ci teg sa télé bi sa télé di seetaan événement yi muy jàll ngay xool euh, ñi nga xam ne doon nañ leen doon nañ leen tudd di tudd ay nervi yi est-ce que am na ñoo ci xam. non mënu ma li ma ci li ma ci xam li ma ci xam dañu ay mbër. amul ay mbër. amul ay mbër c'est des. mais mais am na ñoo ñi ñoo ñoo ñoo ñu nga gis xam nga leen yi am na ñoo ci xam. non am na ñu ma jox am na ñu ma ci ràññee. non ba xam leen waxuma la ràññee xam nga leen ci wàllu jëflante wala xam nga leen nit ñi. dañ leen di bokk saal bu ngeen di entraîné wala dara. comme travail de facilité la ñuy def am na mënu ma ci mën naa ci xam benn benn ne xaw ma ñëpp mën naa xool ni diw kii la kii diw la. Hmm. kon kon benn nit lay doon. benn nit doon ñaar nit lay doon parce que mit milieu sportif. Hmm. ñi xam nga dañuy xamante benn benn. mais kon kon kon kon ñoo ñu ñoo ñu ñu gis ci biir mbir yi ñi nga ci xam kon du ñu ay policier ñoom. du ñu ay. du ñu ay policier. policier. Hmm. bon policier newu ñoo ñu ñooñu lay ñooñu c'est pas des policiers. ok loolu tey ku bëgg ku bëgg ni ay policier la wax ay policier da ngay wax loolu neex rek ay nit ñu recruter la ñoo xam ne dañuy ànd c'était juste. ni pour semer problème te loolu état bi war na ci jël war état war na bu coow li jeexee nag bu caaxaan jëge dañu dëgg desee yooyu état d'état du Sénégal war na ci tenir en compte. ubbi enquête ubbi enquête. ñooñu xam ne tey dañ leen ñëw indi woon tey jaxasoo euh, service d'ordre bi di def sàll boulot yooyu état bi war na ci na ci jël ubbi enquête. état bi mu bu mu ci liggéey liggéey ku ne mu ku ne mu dugg hmm. am na xam na fu mu war a jaar. loolu lu ñuy déplorer la parce que tamit ñaaw la te ñu ngi ñu ngi xaar pour état bi def investigation ci loolu liggéey ci parce que tamit. yu mel nii war ko amati ba ba kuñ ciy recruter ëllëg sax nga xam ne tey lu ne mën na la ca fekk. Hmm. Hmm. d'accord ba nga xam ne bu ëllëgee. yu hmm. mel ni bu amatee. bu la wooyee sax di ci dugal sax nga xam ne lii tey lu ne na la ca mais tey bu ñu toogee ñu def comme ça mais jàmm am na mais am na ay leçons yu bëri yu ñu ci war a tiré. ok tey ñun respecté nañu suñu trop. mais mm-hmm. lii tey. Mm-hmm. dañ ko war a topp. Mm-hmm. dañ ko war a topp parce que ñoom ay ay ay ay xam leen fu ñu jógee rek c'est am ay plaque lañ am oto yoo xam ne xam leen fu ñu jógee. non dafa am yu am plaque am yu amul plaque. non li ci ëpp dafa am plaque. am insigne nga xam ne tey. yoo xam ne ministère de l'éducation nationale moo ko moom. waaw kon nag ça veut dire que tey. soo hmm. bëggee xam soo bëggoon soo bëggoon xam tey ñi ngay recruter boo bëggoon xam tey ñan la tey suba suba tey suba suba nga xam yëpp. dëgg la kon boo am na ci yoo xam ne nag état bi malgré que coow yi jeex na sant nañ yàlla jàmm dellu si na si dëkk bi et li am importance mooy nekk suñu liggéey ku ci nekk xam nga parce que tamit Sénégal xam nga ñun jàmm ñu ñu dig jàmm rek ñu dig. ñu reprendre liggéey bi activité yi tàmbali tamit xam nga li yàqu bari na di masawu nag xam nga ñi si xam dañ ci perte bi nga xam dañ ci perte seen vie xam nga ñi nga xam dañ ci am ay blessure xam nga ñi nga xam dañ dañ ci yàq dañ ci dañ seen al ay alal dañ ci dañ yàqu dafa mm-hmm. laa ñoo kenn kenn xamul nan lañ def ba am seen ba am seen gagne-pain boobu ñii dañu leb ci banque yi def ay investissement yàqu-yàqu dégâts yi bari trop dégâts yi bari trop ñuy jaale ñi nga xam ne dañ ci dañ ñi nga xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan ñu ñuy jaale seen ay mbokk te dëgg le président li mu ci wax nee na dana jël dana jël en dana dana dana dana dana jàppale bakkan nag ñëpp xam nañu kenn mënu koo changer remplacer ak dara. Mhm. mais dana ndàmp dana ndàmp njabootu victime yi ñi nga xam dañ ci gaañu dina leen ndàmp. d'accord nag euh, loolu. nekk lu le plus rapidement possible. Mhm. parce que nag dañu nekk lu ñu traîner parce que nag. ñooñu xam naa ne il n'en est tellement besoin malgré que paquet amul prix hmm. mais xam nga lool yëpp nag état ko war a jël en considération ok euh, Gris Bordeaux di président des lutteurs du Sénégal nekk itam troisième tigre de Fass nekk koo xamante ni bu ñu waxee lamb ci Sénégal wax ko lamb ji fi mu toll ci Sénégal xam nga ni sooxe na ndax at ak lu topp ngi nii bëriwu leen euh, saison baa ngi ubbi ñu ngi di ngeen bëri à huis du ngeen ko def dara wóoragul waaye lu mën a am bu leen doon imposer euh, huis clos bi ngi pour fay leen ci xaalis ngeen bëri ko di ngeen ko def non man man ah non mbër yi nag ku ci nekk da nga am am encadrement mais làmb moom bu ñu nee huis clos làmb moom wax dëgg yàlla nekkatul làmb ay ay loolu ay loolu ay sabotage la neexul ah mais yéen. mais mais mais football bi defee huis clos làmb ji mënul def huis clos. non làmb moom làmb làmb sport individuel la te làmb moom boobu ko jëndee mbër bi nga xam day bëri sax day ko tàkk wala ko supporté. ok comprendre. waaw mbër bi waaw ça veut dire que tey bu ñu nee wàllu huis sport yi nga gis nii yëpp individuel individuel yeeg collectif yëpp dañ ko accompagner pour benn nombre boo xam ne dañuy ñëw di seetaan mais tey bu ñu nee làmb bi ko maanaam tey euh, li li ñu bëgg a seetaan dañ ko seetaan bu motivé bëri bi yoraat dafa bëri ay manquement loolu sabotage la tey euh, état bi war na jël ay war na teg ay ay ay schéma yoo xam ne moo ñuy permettre tey am benn nombre takku bu bëree gars yi jël mesure de barrière mais tey bu ñu ay huis clos làmb baaxul huis clos huis clos loolu sabotage loolu moom c' est n'importe quoi te tey même làmb ji bu bee tey date bi dafay gàtt trop on est on est on est mois de lan. mois mois de mars presque avril koor gaa ngi dugg si. mars koor gaa ngi dugg si mars avril mai juin juillet août. ça veut dire que ñun amuñu sax amuñu sax moitié mois amuñu sax xanaa dañuy daw xanaa dañuy bëri ci biir ci mois d' août. ça veut dire que tey bien avant que pandémie bi dugg ci kër gi ci dëkk bi. làmb am na am na dellu la gannaaw. làmb 2012 2013 2014 ak làmb 2016 diamétralement opposé malgré que pandémie bi ñun bëri amul euh, leen lamp yi maa ngi lay gërëm ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi ak sénégalais yi lay déglu. waaw bon ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaajëfal auditeurs Sud FM yëpp ah di am contentement trop di ñuy déglu lépp loo xam ne yëkkati nañ ko ci kàddu rek. Hmm. mu nekk lu dëng rek ñu ngi koy ci ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jégalu suñu matériel rek waaye suñu intention mooy. wax loo xam ne tey euh, dina dugg ci xolu nit ñi dina dugg ci xelu nit bi mais état bi war na def ay effort yu gigantesque pour jàppale lamb parce que lamb suñu sport national boo xam ne dañ ko édité à nos ans sans cesse tey tey euh, làmb sooxee na làmb teelul ni ginnaaw làmb jaaxle na parce que tey pandémie bi ñuy métti état bi subventionné ak secteur yëpp jusqu'à présent à nos jours amul lenn loo xam état def na loolu tey discrimination la loolu stigmatisation la boo xam ne ko naa de parce que tey euh, amul benn secteur ci Sénégal boo xam ne tey làmb état bi indemnisé wu ko jàppale wu waaw liggéey métti ñu ngi gis activité yi ñu yëpp même doxul à cent ngi dox à mais làmb depuis un an et quelques làmb doxul mbër yëngatuwul ça veut dire que kan moo ñu gën loolu nag discrimination la il faut que état bi xamul ni euh, kenn gën nañoo impacté tey mbër yi nga xam ne benn wàllu mbëgg mi mbër yi jël mbëgg mi yëpp mbër yi kenn ëpp leen parce que désespoir encore le président de la République tenir na compte bàyyi na xel jeunesse bi jeunesse bi dañuy sonn jeunesse bi dañuy sonn il faut que état bi gaaw ci gaaw ci système yi ñu teg pour pour pour accompagner la jeunesse encore une fois ñu ngi jaar ñëpp jaajëf le message est clair Gris ñi ngi lay jaajëfal baax a baax ñu koy gërëm di ko jaajëfal le troisième tigre de Fass président des lutteurs du Sénégal alors ñu koy jaajëfal baax a baax dem jaajëfal itam auditeurs yeneen yi ñuy bàyyi xel ci wax yi te bëgg a bokk ak ñun jotaay du ñu def lu dul jël leen di fàttali rek yéen a ngi ci émission tàlleen lamp yi. Sud FM seen rajo ginnaaw Gris Bordeaux ñu dem xool beneen auditeur ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñu dem jël keneen. ñu dem jël benn auditeur ci Sud FM seen rajo le choix de la différence seen émission taal lamp yi ñu dem ginnaaw Gris Bordeaux dégg ngeen li mu wax yëkkati ko jëmale ko ci sunu ay kilifa jëmale ko ci sénégalais yi jëmale ko ci mbër yi mais jëmale ko également ci émission taal leen lamp yeeg ñi ñuy bàyyi xel yëpp xam ngeen ni fii ñu tollak ak fi Sénégal toll actuellement. Euh, jàmm la ñu bëgg mu ñëwaat ci réew mi dal la ñu bëgg mu ñëwaat ci réew mi kenn ku nekk ci ñun xam ngeen ni am nga wàll ci tàlle làmp yi moo xam ngay mbër moo xam ngay politicien moo xam ngay citoyen simple moo xam foo mën a nekk itam ci biir réew mi comme bitim réew mën nga bokk ci émission bi ci 88 628 98 98 ndax tàlle làmp yi mooy Sénégal yéen la fi nekkal ginnaaw moom ajo ko ci topp na nga def. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw Sidi Diop. Sidi Diop sant ma Diop day wax dëgg yàlla. ah. santuma Diop de. ah santuma Diop wax nga dëgg de. waaw <laughs> eh, kon boobu borom taal na lamp yëpp tàkk noo sant yow. man Ngiraan. Njilaan noo tudd. non Ngiraan Ngiraan. noo tudd. Ahmed. Ahmed Ngiraan bisimilah. Mm-hmm. allo. acca bisimilah yow la ñuy déglu. waaw euh, si kii bi gannaaw ba ñu méttitloo ñu fi jot a xew yëpp moom vraiment. Mm-hmm. man fenn rek laa bëggoon ñu fàttaliku tuuti. Hmm. mooy comme li ñuy reproché mbër yi. Hmm. pour man di occasion la pour ñu xoolaat bu baax a baax Sénégal nag dañ war a mun a organiser waatee sport surtout làmb ji parce que boo xoolee làmb ji tey bi am na ñu ko doon organiser rek amaan na mbër yi kenn du leen gaaw a di leen si affaire yi nga xam ne ni après dañ leen ci xeeb. parce que boo xoolee làmb ji bu ñu ko organisé woon tey euh, am na organisation yu ñu ko doon def rek dinañ dinañ mën a tey jii mbir yu mag boo xoolee tey làmb ji yi ñu ngi siy bénéficié wu. léegi ñu ndaw ñi moom dañu nekk à la porte bi de Nabou Souza loolu nag dama lancé appel mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo tënk làmb ji. ñu mën a gën a xoolaat naka lañ koy organiser bu baax a baax. Mhm. de telle sorte que xëy na suba euh, affaire yi moom dinañ ñëpp à dire ñëpp acteurs yu ci mën a profité. Mhm. sinon bu loolu moo nekkoon nga xam ne bëggoon naa ko jàllale tey jii te tamit di la encouragé bu baax émission bi. ñu ngi jërëjëf. waaw am solo jërëjëf Mouhamed ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. Mouhamed ah. Guirane merci ñu ngi lay gërëm di gërëm auditeurs yeneen yi ñuy bàyyi xel fépp fépp ci biir Sénégal comme bitim réew. tàlleen làmp yi mi ngoog yéen ko moom euh, yéen leen ko indil yéen leen ko jagleel ñii ciy wooteeg ñi ciy bëgg a woote bari lool Euh, ginnaaw émission bi itam nit ñi dañuy wootee fu ne di euh, wax ni dañu bëgg wax dëgg yàlla dégganteeg euh, Sidy Gueye ma ne leen bu ngeen wootee ci rajo bi ginnaaw bu ma fi nekkulee da ngeen di def 33 825 18 30 bu ngeen laajee sama numéro incha allah rabi dinañ leen ko jox ku ngeen fekk rek dinañ leen jox suma numéro dégg ngeen. ngeen woote waxtaan ak Guèye euh, su ko defee Mouhamed dem na ñu jël ki ci topp kon ci Sud FM seen rajo ñu le temps que ñu monté le temps que ñu programmé wala machine bi moom mu muy muy dagg gars yi ah ku sa temps jeex mun la pip pip nga pare ci <laughs> jërëm jël yëre auditeur ci Sud FM seen rajo 88 628 98 98 33 841 22 33 tàlleen lamp yi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Malick. waaw yow li ngay wax ndaw na de yokkoon sa kaw. ah waaye El Hadj Malick maa ngay wax ci kaw lu xew nii waay. yëgguma dara ci li ngay wax nag. machine yi la waaye du man de machine bi la de. ah. machine yi la de maa ngay wax ca kaw. ah waaye defaral machine yi man dégguma dara de. ah waaye da war a dégg nag dangaa war a dégg de. ah damaa war a dégg kay. ah ndax war a wax. da a dégg <laughs> waaw noo def. sant yàlla. <laughs> yaa ngi ci yaa ngi <laughs> yaa ngi dégg sama ree yi yaa ngi dégg. Ah, ah léegi léegi de maa ngi lay dégg tuuti tuuti nag la wóor na yàlla dafa suufe lool. Ah, di la nuyu bu baax baax nag. waaw maa ngi lay fay Malick. di nuyu di nuyu itam waa kii bi bu baax a baax a baax waa émission bi yëpp di nuyu di nuyu Baye Omar Gueye di wax ne di wax ne waxoon naa la nga jëndal ko ay kawas waaye ndeke jar na ko de. ma jëndal kan ay kawas. Euh, Baye Omar. ah lu mu koy doyee. non jar na non jar na ko jar na ko xam nga. Ah. xam nga dafa am lu ma bëgg a wax ci moom tey. waaw. dafa wax barki démb benn wax waxu waxu ko yem ci mais da koo jëf. waaw. xam nga dafa doon def benn waxtaan bu am solo moog benn waay. waaw moog Baba Diop. Euh, suur boobu waaw deful sax euh, deful sax journal amul woon mais Adama ma ngi toogoon. moog moog Baba Diop ak aadama waaw. waaw bi mu demee ba heure wax sa xalaat bi jot. Hmm. mu ne Baba Diop sa kàddu gu mujj ndax kat heure bi am nañu ko moom te mooy wax sa xalaat kon bàyyi na ñooña xel. Hmm. dégg nga bu baax li ma wax. <laughs> waaw waaw bu baax baax. waaw waaw loolu nag dafa am solo ci njiit. Mhm. toujours da ngay bàyyi ñi nga xam ne am nañ ci lii loo leen séddoon nga bàyyi leen ca xel bu jotee nga jox leen ko. Mhm. te def na ko. Mhm. bon fi may ñëw nag sii di. waaw. mooy li xew Sénégal te mu metti nu lool te lu xamoon ne mënut a ñàkk te xamoon nañ ne dana ñëw. ah wax nan ba sonn de. ñoo euh, ngi masawu nag ñi ci gaañu ak ñi ci ñàkk la ak ñi ci faatu ñëpp ñoo ngi leen di gaal. dëgg la. te di la wax ne Sidi. Hmm. Euh, man nag samay wax du neex ndax man sama ngëm-ngëm laay waxee. waaw. Euh, di la wax ne affaire bi jeexagul de. dëgg la. dañu bëgg a maatale rek ne jàmm am na mais jàmm ji taxawagul. des na de. xam nga lu tax. li hmm. indi lii. Hmm. bu fa jógut dana dellu si. dëgg la. dégg nga wax bi bu baax. waaw waaw. li tax lii am. loola dafay jóge bu fi jógee lii du dellu si waaye bu fi jógut lu raw lii mooy dikkaat. dëgg la yàlla bu mu am. te maa la ko wax. dëgg la dafa am dama am benn xaritu séeréer dama ne ko woon euh, dañuy waxtaan ma ne ko góor du daw mu ne maa akay góor dana daw ma ne ko lu tax góor di daw. mu ne ma dafa am ñaari baat yu dend si bokkuñu. Hmm. moo tax góor di daw benn bi mooy dàq góor mais benn bi du dàq góor. ma ne ko ban la mu ne ma ma ngi ñëw ma ngi ñëw ma ne mu ne ma dàqul góor war te dàq góor daal kooku góor war na ko mën a xaar ba xam li ñëw lu mu doon. Hmm. waaye mu ne ma ñëwati na te nga xam li ñëwul lu mu doon. Hmm. mu ne ma loolooy dàq góor. leer na. leer waaye gis nga bii ñëw. gis nan ko nan moytu mu ñëwaat bu ñëwaatee jaajëf euh, wax na dëgg El Hadj Malick Sud FM seen rajo le choix de la différence taal leen lamp yi di émission bi leen di gunge di leen waxal itam ci 98.5 si liggéey ngeen ci àndal asalaamaaleykum asalaamaaleykum Sud FM 88 628 98 98 33 841 22 noo def. mu mel ni kooku dem na ñu jël ki ci topp ginnaaw alaaji Malick euh, keneen ku ñëw dañ lay defal euh, bip su ko defee ñu waxtaan bu baax a baax ci tàlleen làmp yi ci Sud FM Sud FM asalaamaaleykum auditeurs yi yéen da ngeen affaire yi teel naa planté di waaw bu leen def ñuy waay bu buñ ko songo nowee rek lépp planté de ay ci ñëwal ki ci topp asalaamaaleykum waaw. waaleykum salaam Guèye Guèye. Mbengue Mbengue. na nga def Guèye. maa ngi sant bu baax kay. yàlla yàgg lool ba yàlla may nu kàttanu sant. amiin yaa rabal aalamiina. yembaloon na wéru sant ak xéewal yi sant. amiin Mbengue. yàlla ci boppam sunu Muhammad lay nuyu di nuyu mi. ñu ngi lay fay bu baax a baax. ak njabooti réew mi ni ci bitim réew mi. Mhm. di leen indil nuyoo Baye Fall Mbuus. Mhm. ca marché Ousmane Masseck Ndiaye ak kii ñu naan Fara Diop wàndu pièce détachée automobile bu bees original hmm. ak Alaaji Maguette Ndiaye entrepreneur commerçant ak Alaaji Assane Seck mu yaay roqee ak Alaaji Xalifa Ndiaye transporteur Alaaji Bajoor Serigne ak Mor gi Gaye Asseroute ak kii ñuy wax maître Fatima Fall maître Boucher madame Gora Diagne Syr ak Adja Ndeye Diagne Syr ca Thiès ak ki nga xamante moom la ñuy wax Jean Camara ak ñoom Amba mi ak ñoom Maam Dia mi ak ñi nga xamante ni ñu ngi fi ci gox bii ma nekkee di ñoom Omar Touré ñoom ak ñoom Jean Day yépp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom Jean Camara ñoom ak ñoom Gala BM ñoom Jaga ambulance di la xamal ni réew mi ne waxoon nga waxati nga te waxi mag ñëwal nga ma mag jar na bàyyi ci réew mën na lool ndax waxi mag boo ko dee déglu rek mooy suñu bibliothèque mag ñi duñu bind ñun africain duñu bind comme duñu bind rek li ñuy wax nag da koy déglu. moo tax mag ñi bu nu masaan di waxtaan du nu dàq ndaw yi ndax si waxtaan bi ci ngay xamee dara lu xew boo gisee gone ak ak doomu sëriñ jara jël conseil ñeeñoo doom ji ca ron laal ba lay commencé dégg sëriñ ca taata Aliou jël dégg ñooñu ay boromi way ndare lañu seen wax dee ko déglu am réew boo ko jiitee da nga war a am naamuus war am jaasus war a am xaasus naamuus musal musaana dafa baax buur boo déggee diw a bare jabar rek dafa am bàcc te lii am ci réew mi yëpp borom réew mee ko sooke moom lañ koy wax ndax yedd nañ ko guddi yedd ko bëccëg ci sa rajo bii di Sud FM ba ko doon déglu déggoon na waay bu yàgg jubóol ak ñi nga réeróoroon jéggal ñi la tooñ jéggul tooñ jël réew mi jël surprise di tekk ci yoon wàccee ministère yi nga yor tey yabaat yeneen ministre de l'intérieur am bii ak ñi àndal te jaaruñu ci yoon yi nga xamante ni wi mu jaar baaxul mu wàccee leen jël ko mel ne Ousmane Ngom teg ko foofa bu bokkul ak moom dana mu liggéeyal ko ministre de l'intérieur bi joxe dante yi joxe processus bi bàyyi Karim ci yoon wi bàyyi Khalifa Sall ci yoon wi bàyyi Sonko ci yoon wi bàyyi keneen ku bëgg a wote ci yoon mu ànd ak ñoom defar ëllëgam waxi kese ak xaalis pour nit ñi xiif nañu sonn nañu te réew mi jëm na koo xamante ni bu ko dogalewul du baax ci moom waaye du baax ci njaboot bi maa ngi leen di nuyu rek di leen sant ci boppam solo Muhammad maa ngi leen nekk taaliba bu nangu seen taaliba jërëjëf góor gi Alé Mbengue ñu ngi koy gërëm bu baax a baax su FM seen rajo ñu dem jël beneen auditeur ginnaaw El Hadj Alé Mbengue ki ci topp ci téléphone bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. asalaamaaleykum Sidi. waaw. PCA. ah PCA na nga def. maa ngi fi naka nga def Sidi. sant yàlla naka coono yi massa coono. massa seen wàll ñu ngi leen di. ziar waaw waaw massa coono defe naa ni euh, keroog jooyloo nga ñu bari te le message a été bien entendu également. j'espère bien. waaw waaw. waaw j'espère bien. mais am na tamit leneen lu xew Sidi mooy que ne jàmm amagul. dëgg la dëgg la. comme ni ko tonton Malick waxee. dëgg la. waaw léegi nag jàmm pour mu am lenn rek moo mun a am. Mhm. mooy que ñi nga xamee ne que nii il travaille avec le chef de l'État. ñu mën a am hauteur ci seen bopp. ñu mhm. poser seen démission. dëgg la. ministre de l'intérieur. Mhm. dafa war a démissionner. Mhm. dafa traiter toute la jeunesse sénégalaise de terroriste bon man loolu méttiwuma sax parce que Mandela a été traité de terroriste. mais il doit démissionner. ministre de la justice il doit démissionner. ministre de la jeunesse. préfet. procureur. pour jàmm am Sénégal. Mhm. ou dañuy ñoom dañuy démissionner wala président mu dissoudre le gouvernement. wala wala mu def remaniement bu wees. exactement waaw loolu laa miin. Hmm. te mu seet ni nga xamee ni que nii parce que on a tellement d'intellectuels. Mhm. on a tellement de cadres de bureaucrates yoo xamee ni que nii seen réew kese moo leen ñor mun nañu ñëw toog ci réew mi liggéey ko. et remettre ce, ce, pays, ce pays sur un pied. yaa may dégg fii de. bu baax a baax. waaw ñu loolu moo mën a am jàmm am parce que fi mu toll nii metti na ba pare arrestation yi nga xamee ne nii ñu ngi koy def ci xale yi dafa war a arrêté parce que loolu tamit du jur jàmm. du jur jàmm de ba pare ñooñu. du jur jàmm. Mhm, mhm. nañu bàyyi arrestation yi ñuy def. waaw yi ñu war a arrêté ñenn kese la. nervi yi la. nervi yi buñ ko mënul def nañu bàyyi xale yi ñuy dem di arrêté apparemment aujourd'hui am na 500 arrestations et 100 personnes yoo xamee ne ni ils on été déférés donc ça veut dire que am na 100 cent cinquante ya yoo xamee ne que ni ñu ngi toog di jooy ño xamee ne que ni suba war nañu yóbbul seen ay doom añ. c'est pas normal. Mm-hmm. xam nga man bu ñu nee peut-être que ça va un peu mais bu ñu nee oui Auchan dañ ko kase. d'accord c'est c'est je suis pas ñëpp d'accord uñu ci loolu mhm. mais bu ñu fàtte ne Auchan euh, am na assurance man li ma li ma gën a yërëm si di pour dire la vérité mooy ki nga xamee ne que nii amul assurance ki nga xamee ne que nii amul les moyens te alalam yàqu na kooku amul kenn koo koy remboursé mhm. nañu arrêté jeunes yi ñuy jàpp ba pare jeune yi nga xamee ne que nii ñu ngi ci biir prison bi nañ leen bàyyi ñu ñibbi noonu lañ ko mën a lay taayee pour que ñu mën a amaat jàmm ci réew mi. Mhm. te ñi nga xamee ni que ñu ngi ci plateau yi di wax bi nga xamee ni que ni tàng na si ñun ñëpp dañoo daw bàyyi président. waaw amul kenn koo xamee ni que ni yëkkati nga sa téléphone wala dem nga ci plateau yi nga wax maintenant. Euh, ñu koy gërëm bu baax a baax PCA mën na ñëwaat euh, ci Sud FM seen rajo mi ngay wootee Londres ca Angleterre. Euh, di gërëm itam alaaji Ala Mbeng alaaji Malick Sall Ahmed euh, Ngiraan ak Gris mi fi jaar auditeurs yi nekk ci ligne bi bëgg a bokk ci émission bi bëri macha allah ñu du ñu def rek lu dul desande ñoom ci jotaay bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. aleykum salaam. Ah, sëñ bi na nga def. dañu sant rek sii bi. waaw. Jibril Fall. Jibril na nga def. Ah, waaw ñu ngi sant rek. Fall fooy wootee. ay woote HLM. naka waa HLM Jibril. ñu ngi sant bu baax. keroog sa booy yi gars yi tëbali nañ leen ñu taal foofu yëpp. <laughs> waaw ñun nag moom wax dëgg yàlla moom bokk ñoo si biir. taw bokk lañ ci biir ñi waa HLM yi ñu tëbali woon. waaw jogoon yàq yàq nañ suñu liggéey ñun ñëpp sax. dëgg la dëgg la dëgg la. waaw mais nag xam nga dëkk moom comme dafa toll foo xam ne rek. ñu mm. ñu ñaan rek jàmm di am saa su ne. dëgg la yal yàlla yokk jàmm ji. amiin te jàmm ji nag yaakaar naa ñu ngi jiite rek ñoo ko ñoo ñoo ko mën a indi. ak ay dëgg. ndax nit ñi li ñu meroon dafa bëri de. yee loolooy dëgg de. waaw ndax asalam fii dama doon gis koo xam ne journée trois mille lay am mu liggéey wàcce maskam sax di naan kafe ñu ñëw jàpp ko seen yóbbu. moo ne loolu métti na. dëgg la. moo tax keroog bi coow lu amee rek. li ñuy wax rek kenn ku nekk ak la la ci metti mhm. waaw kenn ku nekk da nga am la metti léegi daal li ñu ñaan mooy comme ñoo bokk réew mi nañ fexe jàmm am waaw loolu laa mën a dégg. jàmm am fi ñu ñaan dal am te ñu ñu jiite ñu bàyyi seen xel te xam ne bis bi dina am. Mhm. Euh, mel euh. ni dem na ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. di fàttali auditeurs yi ni euh, bàyyi xel ni mën ngeen a continuer di woote ci émission bi bu ñuy wax jàmm ci réew loxol ñëpp nga ca bu ñuy wax jàmm ci réew ñëpp ca war a tabal dugal seen loxo waaye bu ñuy wax jàmm ci réew itam ñëpp la ñeel euh, waaye defe naa ni président de la république la population luy a lancé un message très fort un signal très fort à travers ces manifestations te signal bi ñu ko envoyé bi mu ko capté itam décortiqué na ko ndax ci discours am ci la waxee ni dëgg la ni euh, manifestation yi li ci ko sookee bokk na ci nit ñi dañoo xiif nit ñi dañoo sonn nit ñi dañu am jafe-jafe ci seen euh, dundin ak seen euh, koom-koom bi ñu daan am te li waral loolu bokk na ci pandémie bi nga xam ne dafa wër àdduna dégg nañ itam mu ni dina def deuil national lu baax la waaye na gën a déglu askan wi ndaxte bu ñu gisee continuer arrestation yi di continuer di am gars yi di xale yi ñuy traquer xale yi à travers euh, euh à travers euh, manifestation yi amoon ñu ngi traquer xale yi nga xam ne dañ ci bokkoon ndax xëy na police bu defee loolu am na fu mu ko teg xëy na am na ñu mu gis am na ñu mu xam ndax xam ngeen ni caméra yi nekk ci mbedd yi dafa mi ngi dox caméra yi nekk ci mbedd yi police ak gendarmerie ñoo ko yore. Hmm? kon képp koo xam ni yaa ngi am sa doom di ko bàyyi bu dara amee mu cay def naka sudul noonu lu bokkut ak la waroon a am buñ ko jàppee itam da ngay bokk ci ñi ko jàppalu te loolu mën naa ñàkk fii ñu toll ak euh, lii Sénégal dox defe naa ne ak li Sénégal dund ci jamono jii mosuñu ko dund te ñaanatuñu yàlla dund ko léegi nag euh, liy saafara mbir mi de bon li koy saafara pour toujours bokk na ci fekkee dañuy traqué xale yooyu nañu traqué waale ñi nga xamante ni ay ponkali mag yi jëmm leen yore ay yat yore ay oto yoo xamante ni oto yi yenn oto yi ñu ngi bokk ci ministère de l' nationale ndax vidéo yi ñëpp gis nañ ko logo insigne ministère de l' nationale moo nekk ci oto yi nu yéegoon am ci oto yoo xam ni am na matricule am ci oto yoo xam ni amul matricule am ci oto yoo xam ni topp nañu leen ba ñu dugg ci siège yu APR léegi bu fekkee ne dañu bëgg a jàmm ñëw ci réew mi dañu bëgg a jàmm am ci réew mi il faut ñu jéem a yemale parce que loolu mooy tax nit ñi dal ndax mënu ñuy topp xale yoo xamante ni xëy na doon nañ sànni ay xeer doon nañ lakk ay pëna doon nañ baare tali bi euh, ñenn ñi bi ñu tojee ay magasin ñoo fa dugg di jël far caméra yi génn leen loolu yëpp euh, jàpp leen defuñu lu dul yoon xale yi defuñu ñoo ñi def loolu defuñu lu dul yoon ñi leen pousse ci ñu def loolu itam defuñu lu dul yoon waaye bu dee ku deful lu dul yoon ñu teg ko yoon ah, kon nag ñi nga xamante ni itam yoroon nañu ay yat te Sénégal yëpp bëgg a xam ci ñooñu ñan ñoo leen recruter. normalement une enquête doit être ouverte sur ça dañu war a ubbi benn enquête yi ñi nga xamante ni dafa dañoo yable jël ay nit di leen fay journée quinze mille jox leen xaalis pour que ñu dem euh, gagner euh, gaañ ñenn yenn sénégalais yi te loolu baaxul ci réew bu fekkee dañoo bëgg a defar rek tey defar dañoo bëgg rek jàmm am ci réew mi ne bu ñuy def justice nan ko def pour ñëpp te li nga xamante ni jaar na fi ba lii yëpp am yaayu dee mort dom ñu xale yu bëree bëri génn ci àdduna ñu baree bari yàq ci yàqulu ci yàq ci seen matériel yàqu ci kon dañoo war a def bu président ne dañu woote day national bu président ne dinaa génne benn somme bi lu tolloog trois cent et quelques milliards jox dugal ko ci ndaw ñi def ko ci ndaw yi président génne na programme bu ne def na lu ne mais xaalis boobu fan la jëm ñan ñoo ko yoree agence yi ñu créé pour ñu financer ndaw ñi ñan ñoo ñan ñoo ko yoree xaalis boobu fan la dugg xaalis boobu fan la jaar donc dañuy gis nit ki bu amee benn poste de responsabilité au niveau de l'État gis nañ ko mu changer garde robb gis nañ ko mu changer oto gis nañ ko mu yore ay kër mais ba kañ xaalis boobu xaalis senegal la war nañu mën nag wax dëgg yàlla li askan wi moom ñu delloo ko askan wi li askan wi war a am ñu jox leen ko ba mat defe naa ni loolu mooy tax jàmm am loolu mooy tax nit ñi dal ndaxte boo demee ba dëkk ci am réew amatoo espoir ci sa réew wala wóolootoo wala yaakaaratoo ni ñi lay déglu di say autorité war laa déglu war na bu la dégloo dégg la ba pare jëfal la la ngay wax euh, bu ñu lay wax ñoom di la tontu amoo ci ñoom espoir amoo ci ñoom confiance amoo ci ñoom wóolute loolu dafa grave ci am réew kon nag réew mi pour mu sedd pour mu dal euh, bu kilifa euh, diine yi jógatee wax na ngeen leen déglu. rajo bi ak rajo yi ak émission yi mel ni tàl leen làmp yi ñëw di leen waxal da ngeen leen di déglu parce que li ñuy wax pour yéen la pour lu baax ci la ñun ñëwuñu fi pour di leen wax seen costume rafet na ñëwuñu fi pour di wax seen cravate yi rafet na ñëwuñu fi pour di wax vous avez de belles bagnoles dañ fi ñëw pour di leen wax li sénégalais yi dund ak li tax ñu fal leen ñu leen koy fàttali ñun tant que duñ leen wax loolu ba ngeen dégg ko rek sunu mission des na ndax ñun loolu mooy sunu mission sénégalais yi muy baykat bi muy nappkat bi muy sàmmkat bi muy jàngalekatu alxuraan bi muy commerçant bi fu ci waay mën a nekk di couche yi nekk ci biir Sénégal yëpp ci biir Sénégal fu ci waay mën a nekk ak sénégalais bi nga xam mi ngi bitim réew am njaboot biir Sénégal ñoom ñëpp seen i jafe-jafe il faut que ñu leen koy wax mais nag bu ñu tàmmee di wax dañu bëgg ngeen ñuy déglu waaye bu ngeen ñu dégloo ngeen jëfee li leen di wax parce que ñun am na ministre ak i député yu ngeen fal yoo xam ni ñoo leen ëpp importance foofu ci suñu digganteeg waa askan wi am na ci beneen kaa boo xam ne ñu bari duñ ko wax li xew ci réew mi li xew ci réew mi ci jamono yi député yi am nañ ci part de responsabilité bu mag te kenn tudd leen député yi am nañ ci part de responsabilité bu mag rawatina les députés de la majorité loolu sénégalais yi dañ koy fàtte te lu bëree bëree bëri tey bari affaire bi jaxasoowee kenn déggu leen kenn gisu leen dañ ni fes ñenn ñi dëkkuñu woon sax seeni i biiri kër ndax ragal nañu ñu toj seen i kër ragal nañu ñu dóor leen ci ay hôtel la ñu dëkki woon ñenn ñi changé solin changé oto dox dem feneen xam nga ni loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw te yow li tax ñu fal la li tax nga doon tu di wuyoo turu député askan wee la ko jox askan wi soxla nga war a taxawal askan wi nga lànk dem def ndax sa loolu sa sa teeyu bakken def loo xamante ni danga nga ni lii kat naa ko def ndax bégal benn nit naa ko def ngir leen may jox allahu akbar askan wi tax ñu fal la nag seen yoon nekkul sa yoon nekkul ci ñoom te loolu moo indi problème yi moo tax il faut ñu xoolal assemblée ni muy doxee itam il faut nit ñi wax ko nañu waxtaan te wax député yi nañ leen wax dëgg député yi nañ leen wax dëgg problème yi fi am lii bokk nañ ci am nañ ci part de responsabilité bu mag voilà Sud FM tale leen lamp yi asalaamaaleykum. ñu jël ki ci topp ci 88 628 98 98 33 841 22 33 noo def. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Sidi. Ndoye. waaw ah, maa ngi ziar waay. maa ngi delloo ziar. di seet noo mais di sant yàlla di seet noo def itam mbaa naka Amérique. waaye ça va moom tey moom macha allah climat baa ngi changé bu baax. jaajëf waay dugg ndànk-ndànk. jaajëf waay. soleil laa ngi ñëw macha allah. Mhm. climat est bon waaye dugal na kii bi. suñu hmm. bi dugg na. lan ci dugg lan dugg na man ci yoon dugg na nga ni. ci benn bi bi bi Biden doon euh, waxtaanee pour américains yi joxoon nit ñi quoi. américains yi. Euh, américains yi jot seen mille quatre cent dollars mille quatre cent dollars. Ah, ah ah dugg na. dugal nañu ko teere xam naa moom dina ko ah, signé léegi affaire yi gars yi jot daal ku ne jot ci 1400 dollars waaw loolu de. ah 1400 dollars saa yi xaw naa xaw naa takku de. <laughs> ah baax na de. ah baax na kay baax na kay kay jarul wax. man ko baax na kay jar wax. waaw baax day jàppale day jàppale gaañu quoi. <laughs> waaw kooku day jàppale nga xam ne dañuy am solde euh, am euh, cent quinze mille dollars euh, par année quoi. kooku presque di nga am sept cent mille et quelque sept cent mille yi day rafet de. loolu cent mille day rafet. te boole. sept cent et quelques liggéey waaw baax na de. dëgg la. am na solo loolu nag la nag la noonu waa ji def quoi jéem a xool jéem a dimbali Sénégalais yi quoi. kii maa ngi nuyu Diouf sama grand gis naa di nuyu Mor Niang di nuyu jigéen madame Guèye macha allah di rafetlu kàddu yi tout le temps di bu baax macha allah di aussi wax ne président Macky Sall si xelam. li mu wootee keroog pour jàmm am moom moo ko war moom mooy yëre armée yore police yore gendarmerie yore lépp. Mhm. ja bu wutee jàmm jàmm am Sénégal jàmm dina am. Mhm. yaa ngi dégg. waaw loolu mu wax. Mhm. ne comprendre le jeunes yi jeunes yi amuñu liggéey moom moo ko donc xale yi doon di yàq loolu il faut les comp nañu lay comprendre côté boobu frustration boo amee mer mooy yóbbu nit euh, mooy yóbbu nit ko su fekkee ne américain yi ñu koy def fii. ñu toj ah bu ñuy bu ñuy bu ñu euh, meree des fois dañuy toj magasin jàmbur yi ci lépp ah lépp la ñu def ba ci ba ci France gilets gilets jaunes dañu koy def loolu loolu yorul muy traqué nit ñi quoi comme ministre intérieur la di traqué nit ñi di leen jàpp yore bu jël ko loolu dafa war a bàyyi loolu te ko suuf libéré otage yëpp xam nga réussir. bu baax kay. libéré libéré otage yi quoi ñu leen libéré c'est c'est c'est c'est yoo xam ne bi seen nar ma doon jàppoon rek ay xale la ñu amuñu liggéey amuñu dara na leen libéré ñu dem seen kër toog. mu jéem a jéem a xool nan lay nan lay jubóog Sénégalais yi. je pense que loolu mooy suuf mais nekk di li mu jik xale yi na def te moon ne bon dina génne ay milliards pour jox xale yi nag mais na ko def na créé na créé emploi. bu chaque jeune ku bëgg am projet nga def foofu mu nekk affaire yu dëgg quoi mais pas affaire wax nga rek waa gën ci ah dafa dëggal daal parce que bu fekkee dëggalu ko aussi day tax yi xale yi gën nga mere. le le camp a changé xale yi dañuy yeewu côté américain yeewu. européens yeew noonu la Sénégalais yeewee li ay nit ñaay lañu nga xam na lu baax a baax nekkoon 1960 nekkatu ci ay 75 euh, 80 nekkatu ci yooyu comprendre nga fi di. bu baax. waaw li ma koy ñaan daal mu góorgóorlu bàyyi xale muy traqué libéré jeunes yi Amérique bàyyi Sonko mii Sonko def ko dara naka bàyyi tranquillement parce que ku nga xam ne xam affaire yi xam ne lépp ay ay ay kii la ay piège ay diir rek la. jërëjëf ñu koy gërëm bu baax a baax Ndoye Amérique lay wootee Sud FM seen rajo ki ci topp la jël ci taal leen làmp yi taal leen làmp yee ndeysaan ale bi yaana dañuy bandaal taal leen làmp yee ndeysaan <laughs> bilaay su ma doon way nga xam su doon way ngeen gis woykat bu mag bu naqari baat kay nga naan bu mag moo ma may ñu <laughs> asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi na nga def. Sidi na nga def Abdoulaye Ndiaye Yëmbal la. yow la. Abdoulaye Ndiaye Yëmbal. Abdoulaye Gaye. Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye naka waa Yëmbal. ñu ngi fi ñu ngi si jàmm. bisimilah. Euh, euh, Sidi je pense que euh, ni nit ñi wax bari na yàgg na noo wax ART. Mhm. comme tu as mais nangu woon dégg ñi àndoo ak moom taxé nit ñi ñu ne bojo bojo nangam ak nangam. fii dara du fi am dugg na fi ainsi quoi mais loolu nekk lu xuloo xuloo la quoi amul solo amul hmm. que euh, que le président comprendre message bi que jeunesse bi lancé te je pense que euh, du du du ko reculer. Hmm. mais il a été forcé. il a été forcé non comment sax médiation yeeg yooyu mais il a le message était assez éloquent. Hmm. il était obligé donc c'était c'était c'était obligé jarul woon sax de médiation il fallait il a il a compris bon euh, léegi nag euh, man am na foo xamante ne du ma ànd ak muy euh, wax parce que hmm. ku ne xam na ne manifester c'est constitution bi moo ko waxe moo ko joxe son droit ils ont le droit de manifester sànni xeer policier loolu c'est un délit mineur les policiers ils l'ont compris parce que le même jour bi ñu waxee na na jàmm am euh, par exemple brigade gendarmerie Samb ils ont libéré tous ay buusi ndox ak lu nekkee ak jus waaw mais quand même hmm. ah, euh, les comme tu dis bu détecté am na ñoo xamante ne parce que ñi ñi gàmmoo ñu laaj seen bokkuñu am na ñoo xamante ne ñi de ñi ñi organiser casse bi les les leaders wala am na si ñoo xamante ne xëy na peut de justice mais c'est normal que ñu xool càmbar euh, selon selon les degrés de de d'implication parce que koo xamante ne mooy ñëw daj ji ab banque jël xaalis bi mais kooku war nu kaa bàyyi perte ak profit suñu amee moyen gis ne kii nangam ak nangam wala ku ñëw daj ji bi parce que ci jël euh, sax mbiskit wala saaku ceeb wala saaku diwlin mën nga saa bàyyi ala ala ala def mais ki ñëw def acte boobu euh, ñu ñu dugg si biir moom moo promettre affaire bi kooku da nga ko war a da nga ko war a jàpp da nga ko war a traqué donc nan bàyyi ñu ñu les délits d'opinion lañu wax loolu nan leen bàyyi loolu moom on a toujours dit ay Guy Marius Sagna ay ñoom Assane Diouf ay ñoom Clédor euh, Sène ñooñu dañ leen war a bàyyi ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait li ci génn léegi wax nag as euh, Sonko ñeneen ñi maa ngi dégg sax tey si wax sa xalaat bi. yoo xamante ni danoo yàgg ànd ak mo ak euh, le président ku wax ñu dal sa kaw nangam ak nangam maa ngi dégg muy wax si saa bi naan nanu nanu nanu nanu nanu nanu gracier euh, nanu amnistier Karim Wade nanu amnistier Khalifa Sall ma ne euh, ma ne ah donc déjà les gens ñu doon wax affaire bi naan nit ñi ay bojo bojo lañu nangam ak nangam ñu ngi changé de camp un peu c'est bon c'est bon waaw donc. jërëjëf Ndiaye Ablaye yëmbal lay wootee. ñu ngi koy gërëm ñu dem seet beneen auditeur moom itam bu buy tollu ci moom ñu jël ko waxtaan ak moom euh, yéen a ngi ci tàlleen làmp yi euh, tàlleen làmp yi group ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax group tàlleen làmp yi auditeur tàlleen làmp yëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu dem continuer ak auditeurs yi fu ñu mën a nekk ku ñu mën a doon ci Sud FM seen rajo ñu ànd ak ñoom ci waxtaan wi asalaamaaleykum. waaw Sidi. waaw El Hadj Malick. allo. Haj malik noo def. waaw yow yow li ngay wax suufe na lool tey jii de. Ah, waay El yow El Hadj man ñëpp a may dégg laa la wax yow mii sa lu nekk sa ah, noppi ah defaraatal mbir mi waay. ah ma ne. waaw ah. gis nga ñooñu ngay wax ñoo yoroon oto yi. Hmm. ak yat yi. Hmm. allo yaa may dégg. bu baax a baax a baax. gis nga ñooñu ngay wax naan nañ leen seet ak nañ leen contrôler kenn du leen contrôler ñooñu dañoo am autorisation sii bi autorisation nag mënoo ko am dem fi nga war a dem ñu dem loola fa nga dem fa kenn dina seetati kenn du leen seet bu ñu leen doon seet du ñu ñëw gaare seen ay oto xam nga gis nga sii di oto ñoom sàcc ñu oto yi bu fekkoon dañoo sàcc oto yi bu ñu ko gaaree diggante police ak gendarmerie wàcc wàcc seen yet kenn ku ne yor sa yet di waaxu nit ñi jàkkaarloog ñoom ñuy dóor tëb ñax yëpp di leen gis te kenn mënu ci dara yaa ngi may dégg. bu baax a baax gis nga gis nga oto. oto dafa nekk loo xam ne bu ñu même bu tey sa oto siidi bala ngaa tëdd ci lal wala bu dee suba gi lañ ko sàcc boo xëyee da ngaa war dem police suba teel dem wax leen leen sàcc nañ sama oto ci guddi gi nangam nangam ñoom ko bu subaa ñu fekk oto bi xam ne fii yóbboo fa oto bi mais sàcc ñu oto yi te gis nañ numéro matricule kilo yi xam nañ ñi moom oto yi lii kay jarul enquête dafa si ki moom oto rek ne ko yow oto koo joxoon oto ak ñi lu leen jox oto ak fu ñu jëm laaj bi kay lu yomb la mais duñ ko def parce que ñooñu soxlawuñ leen soxlawuñu ñooñu soxlawuñu leen gis nga nag problème bi am ci diggante Auchan yi ak Total yi. ñoom du yàgg mukk wax naa la ko mille fois du yàgg mukk ba France perte Sénégal da koy fay xaalisam ba ba wes ko problème bi kay mooy ñi ci doon liggéey tey même buñ ko taxawaa taxawaalaat noonu mu taxawit am na ñoo xam ne doon nañ ci liggéey dootuñu liggéeyaat ñoom foofu la ñuy ñàkk ab liggéey ba faw muy musiba moo xam ne ni kenn xamul nu toll mais fii di gis nga wax nañ fii ba tey réew dañ koy organiser réew dañ koy organiser ñu tëju lay Ndiaye loolu mu wax léegi moo ci nekk ñi doon def wax sa xalaat groupe yooyu fi doon dugg yëpp déggatoo ci kenn woon di wax tey ci ngoon kooku muy wax noonu tey ci ngoon la doon wax di ñaanal ñooñu gracier pour lu mu leen ko ñaanal dañ ko ko sant santuñu ko ko maa ngi nuyu PSA ba xam nga PSA bu baax a baax a baax te di nuyu sama jarbaat boobu ngéyam euh, kii nag Adja Soda Soda Dieng nag fal naa ko mu yumpaañu taaleen làmp yi kon folli na <laughs> <laughs> folli nga kenn folli nga kenn saa non mais alaaji Malick nga yéen a ngi ci Sud FM seen rajo xam ngeen ni alaaji Adja Soda Dieng moom ma nga ca màggalug Serigne Fallou ga xam naa moo tax tey du mën a bokk ci émission bi euh, màggalu Kazu Rajab ñu ngi euh, ziar ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy bàyyi xel rawatina soppi Serigne Fallou yi euh, jamono ji ñuy waxee ak centre de transfusion sanguine dañ fa dafa soxla deret bu ngeen mënee di bu ngeen déggatee maye deret na ngeen dem maye ji deret ndax maye deret dafa baax am na ñu bëri ñu tëdd feebar tey jii Euh, wala ñun ñàkk seen i bakkan ci accident euh, hémorragie interne mën na ne ko mën na causer seen génn àdduna seen ñàkk deret rek mën na leen a faat kon banque de sang yi dañu soxla ku leen may deret dem leen maye ji deret bu baax a baax ñu jël benn auditeur euh, balaa ñoo max pause musicale asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bi nanga nga def sant yàlla mais neel Malick na bàyyi layam layam ji waaw ah, nekk di layam layam yi <laughs> waaw Diop. ah tey foofu la ñu ah, ay Sénégal xam nga lu ko yàq layam layam yi nañu bàyyi layam layam yi. yow Damboj eh. Damboj yàq naa la. Eh. Ah, sama waay la moom kay jar naa teg naa ko sama. kii naa ko naa ko mu bokk ci émission bi sax quoi. Dame. waaw waaw Dame gëj naa dugg ci émission bi nag. waaw da nga koy invité nag mu dugg waay ah. non amul problème. <laughs> mais di la nuyu mon frère di nuyu. maa ngi Lamp yi. di nuyu fay jaajëf. Euh, Diouf anormal gis nga problème Sénégal mooy Macky Sall comme ni ma koy waxee rek. Mhm. parce que fi mu nekk nii il a été surpris et parce que xam nga naagu ak li ñu naan beew dafa baaxul jox la pouvoiru Sénégal rek dénk la ko ngay ngay da koy utiliser di jaay doole xam nga yooyu du yëfi gor quoi li am am li am am nag bu ñu bëggee jàmm ji na bàyyi ñu ñuy traqué. te complot bi nga xamante ne leer na ndax capitaine Touré li mu wax leer na xam nga kuy porter plainte ba pare naan tonton waaw waa duma ci am problème moom ak le jeune Mbaye laa ñoom ñëpp ku ci nekk naan ko du ma am problème ba moom sax jaral na ko muy démissionné ba nee na am na yoo xam ne moom éthique am mayu kooku mu koy def kon ñoom dañ leen war a féliciter mais di teg pression seen kaw di leen mettre sous écoute pour bëgg ñu changer seen i seen i yooyu xam nga yooyu c'est honte comme Macky lu mu war a wax mooy. ñu def complot bi la war a jàpp traqué leen ba xam ne ni dootu fi am. Mm-hmm. su fekkee bëgg na jàmm. Mm-hmm. les les nervis yaa nga xamante ne ñoom ñoo leen sécurité ñëpp xam koy yàqal de ñooñu de defaraloon ko dañ koy yàqal dañ koy booleeg réew mi. voilà moom nag da cee ànd parce lu ñu planifié woon. yëg na ko. li ñu planifié woon mooy tas Pastef jàpp Sonko. Macky Sall rancunier la te bàyyiwul moo tax chef religieux yi doon wax naan ñaan nañ ko mayewul dara il a sauté pour mieux il a pour mieux wax naa ko keroog. tant que tant que tasul Pastef te dynamique boobu la nekk moo tax mu teg ci ministère de l'intérieur tant tasul Pastef jàpp Sonko loolu mooy mooy mooy mooy mooy plan li mu planifié te li ñu utiliser mooy doole ji ko Sénégal yi dénk au lieu que mu liggéeyal ñu mais doole ji lay utiliser di matraquer ay ay ay ay ay opposants te loolu du dëgg du yoon na jàpp nervi yi loolu lañ koy wax booy yi muy yi muy yi ñuy jàpp leen matraquer na bàyyi loolu bu fekkee bëgg na jàmm. te damay wax opposition bi ak waa PASTEF nañu gën a mobiliser wu te nekkat te fexe résister parce que bàyyiwul te bu naree continuer nii il faut que ñoom nañu riposter le Sénégal yëpp riposter wan ka nekk moomoo réew mi loolu mooy dëgg na ci na loolu mooy dëgg na Sénégal yi yëpp taxaw riposter yàq bi ñu yàq nag comme ni ko waa joxee ñoom dañu am ay assurance mais li indi yàq bi mooy ay frustration cumulée frustration cumulée jeunesse amatuñu yaakaar parce que des quatre fi te yëgul yëngulu ko yaramam waa jeunes yooyu nag maire yooyu ñuy accumulé que moo tax affaire sonk détonateur rek la ñu profité ci te en général fii luy bu amee ñëppay jóg ñëppay jóg ak ñu raax ak ñuy raaj jëm dañ ciy dañ ciy profité loolu sax moo am na Europe am na feneen bu fekkee bëgg na jàmm bàyyi Sonko bàyyi ñi muy attraqué ñu mun ñëpp ñi nga xamante ne téye nañ leen ci affaire crise bi ñu libéré leen ñu indi complot ba bi tàkk na ñoo ñu la war a topp jàppal leen ak les nervis yi nga xam ne ñoom ñoo leen recruter na bàyyi xale yi muy attra yi ñuy fekk di leen sa pour charge di leen di leen fekk seen kër di leen jàpp loolu indiwul jàmm de te il faut que ñu ñu ñëpp mobiliser wu bu ko bàyyiwul nag nañu riposter parce que kii il a seul reculé pour mieux pour mieux sauter rancunier la li ñu planifié mooy jàpp Sonko ak tas parti par Pastef. jaajëf ñu koy gërëm bu baax a baax euh, Diop Italie Sud FM seen rajo le choix de la différence ginnaaw Diop Italie. mën ngeen a continuer di euh, dégloo ko woote ci émission bi ci Sud FM seen rajo 88 ngay def 628 98 98 33 841 22 33 Sud FM Dakar asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw mama eh, Lom Jaraaf. noo def waay Dieng. Eh, Guèye Ndiora. Lom Jaraaf na mu naa la. maa la raw maa la raw Dieng. ça bien. baa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm naka sama sëti ak sama goro. ñu ngi fa ñu ngi si jàmm bu baax kay jeng. namm la rek Guèye. ñoo la raw ñoo la raw naka yi tey. maa ngi nii tëdd di la di maa ngi nii ci taal bi sax laa tëdd nii. ndeysaan. naka naka tàlleen lamp yi. ma ni naka tàlleen lamp yi ak senegal non yow moom beneen affaire la macha allah macha allah <laughs> macha allah Guèye. dëgg la dama dul dëgg la <laughs> dama dul mën a rek yàlla xam na ko Guèye mais namm naa la bu baax Guèye. maa raw maa la raw maa la raw baax Guèye. mais nag invité sama doom jooju daam. daam boobu. waaw. daam mi ngi déglu de waaw allah dama dama fis. dëgg la dëgg la dëgg la. wallaay ndeysaan. dëgg la waaw na nga def nag. ñoo ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax. non émission bi kay moom macha allah. te wax dëgg yàlla comme ni intervenant yi ni ñu duggee di wax man dama ci kontaan parce que xam nga ay baaxul. dëgg la. te wax dëgg fa yàlla man de yàlla xam na ne da tiit gi ma tiitoon. Hmm. mais dama doon wax yàlla yàlla na nga saafara lii billaay wallaay taala yàlla xam na. barke yàlla ñaan yi egg si na dégg na ko. non man dama ne yàlla daal yow man de sama fàttee fàll xeex naasik bii. Hmm. yaa azza wa jël naa ma ne ko yow daal yaa mën a saafara. dëgg la. waaw ma ne ko daal même man xam naa ne ba mu juddoo ba léegi mosuma def dara lu baax dama lay tooñ mais yàlla nangur siyant yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. ndaxte ñëpp a tiitoon ji yàlla xam na ko. dëgg la sii hmm. ah? Hmm. ah. man daal li ma ci xam mooy. ñi nga xam ne daal dañ daan taal yi ak di telli telli di rajax rajaxi. di gis nga naagu baaxul ci àdduna yàlla moo am doole hmm. donc man daal li may wax président na jël na jël na na na indi jàmm ak salaam parce que doom bu nekk tamit yaay moo la jur du loolu hmm. man de sii di yàlla xam na ne man de xaw ma sonko xaw ma président xaw ma ci kenn mais man de yàlla yàlla xam na ne day premier jour bi nga xam ne dama xool Sonko rek daal di jooy. billaahi mm-hmm. wallaahi taala. Mm-hmm. waaw parce que man bëgguma injustice loolu daal moom baaxul man daal bëgguma gën a guddal. mais nag yàlla de ñi nga xam ne daal ñu ngi yore seen course nañu ñaan ñun tamit ñu ñaan jàmm na ñooy. Mm-hmm. parce que yàlla moom ki war a toog allah kulli xaal amul benn problème. dafay toog waaw mais tamit doomu jàmbur tamit doomu jàmbur la man de dama bëgg doom ba doomu jàmbur boo xam sii di gis nga fi ma dëkk. Hmm. mine de am naa fi trente cinq ans. Hmm. depuis quatre vingt cinq. Hmm. gis nga sama kër fële marché dama ko appelé pendant trois ans ndax miin fii rek yàlla xam na ko. dëgg la mënuma mënuma tox. dëgg la billaahi wallaahi taala. dëgg la. donc jàmm dafa baax sii di bëgguma gën a guddal maa ngi lay déglu. di ñaanal ñëpp jàmm ku julli nag. jërëjëf defal faate fàll xinaas ak yaa salaama yu bari asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu gay waaleykum salaam Dieng ñu koy gërëm baax a baax euh, maman Aminta Dieng euh, gën nañ ko dégg ci émission bi waaye kontaan nañu lool ci dégg ko macha allah ñu koy gërëm bu baax a baax yéen a ngi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence di ko gërëm euh, gërëm leen yéen itam ñiy topp émission bi ak fu ngeen mën a nekk ku ngeen mën a doon 88 33 841 22 33. ñu jëlaat beneen auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ah la marraine. ah, <laughs> ah moom bi nam la. waaw maman la raw ñoo la raw. ba yaa ngi ah, mbay mbay mbay mbay mbay. ah ci géej dugg gi waaye maa ngi déglu. dëgg la dëgg la. yaram may xawoon massa massa ba yaa ngi am tan. maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax. macha allah siyaar di siyaar auditeurs yeeg auditrices yëpp ma kenn. dëgg la. ana sama groupe baax bi ak xale maa ñu ngi si jàmm ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu baax. ah si maa ngi lay jëkk ñaanal ba noppi ji. jërëjëf Ndiaye Mbaye. nan fàttali leen si di. Mbaye li bëgg yoo xam ne yàlla na ko yàlla defal. amin Mbaye. si di dénk naa la yàlla jërëjëf beeg Sëñ na ma ko daan waxal Guèye ci sa kaddu gi ak yàlla na ko na xam. amiin Mbaye amiin amiin. Ah, maa ngi nuyu nag ma kenn El Hadj Malick. Mhm. xamal ni ko maa ngi koy déglu toujours di nuyu aji Sodom ca soxna si dëkk Thiès. soxna Ayta Mbaye mm. soxna Ayta ñoom. mi ngi noonu dama koy déglu laay sopp ko lool. ndeysaan. Ah, di nuyu ngéyeen bi. Mhm, ndaw si doon jooy keroog jooyloon na ma. PCA. billah jooyloon na ma fii di amul benn émission bu ma raw jooy. ndeysaan. di ñaan ci barke Sëñ Tuubaa yàlla def mhm. jàmm ci réew mi. amiin. di ñaan ci barke Seex Sajjan yàlla delloo si jàmm ci réew mi. Mhm, amiin. di delloo si jàmm ci réew mi si liggéey. amiin waaw. la ma daan wax rek Macky mi ñuy dégg. na bàyyi ndaxte kilifa. mën a weesu kilifa moom suñu borom teg mu nekk kilifa dañ koy ñaan ci yàlla tax na oyo fa loxoom ci liggéey jàmm tëboot yëpp moom lañ soxla maa ngi nii sama doom di nekk États-Unis tamit dama leen di déglu toujours toujours toujours mu ngi lay dégg wallaax ni nuyu sama góor bépp ndar mhm. di nuyu alaaji Moussa ci Tiwaawoon sii di di nuyu kuma caaka bàyyi ma kenn sama sëriñ nekk ñaar tari nag ah, seexu yàlla yi ay liggéey madame Mbacke ñëpp ngay nuyu. Sidi ñëpp lay maa ngi leen di fay bu baax a baax. di la nuyu di la ñaanal. bàyyiwuma kenn amiin yal yàlla nangu ñaan. Sidi di mi yal na ci yàlla def jàmm. amiin lii fa mu jëm bu ñu ko wu ndax gis ma ma na bàyyi waay na bàyyi ndaxte kilifa la. ñun mhm. it mi réew mi moom tamit moom si yàlla teg. man su ma sañoon bàyyi xale yi ñu jàpp na leen bàyyi yàgg naa ñaanal di ñooy saañaan bu yàgg na bañ ko fi téye. Mhm. rawatina Assane kii yaa ban toujours ma wax ko. Mm-hmm. toujours ma ne ko Macky dimbali ko bàyyi ko. yaa ko mënal dara mënalul la dara boo jabootee ñëpp nag da ngay woyofal sa loxo na bàyyi Assane Diouf na bàyyi keneen mu ànd ak mënum tëdd sax Clédor. Mm-hmm. sii damay dégg say kàddu de te xam naa ne Macky ngi lay dégg. Mm-hmm. Macky ngi lay dégg si liggéey yàlla yàlla fa la cat. ndax te faroo fenn da ngay wax dëgg. amiin dëgg la dëgg ji nga sax di ci wax bu la ci dara dindi. Mhm. bu la ci lenn lenn lenn lenn di liggéey. Mhm. yàlla dëgg la bëgg. man amul kenn ku ma ci raw ba barke sëñ Tuba Mbakke wala xasim si bala maa gëmu bët dina la wax. dégg nga pare ba deuxième tour bi si da ngay ci la ci lay dornel aussi. jërëjëf kontaan naa ci yow loolu. yal yàlla kontaan ci yow si liggéey jërëjëf maman. bépp jigéen buy dugg maa góor buy dugg bàyyiwuma kenn alaaji Malick moomu dafa dugg lool lool lool lool lool dama koy déglu bu baax a baax a baax baax nee ko maa ngi koy siyaar di ko nuyu ak jëf normal ak ñëpp bàyyiwuma kenn jay dëgg dugg naa sant yàlla jërëjëf sant naa yàlla bu baax di la sant jay di sant képp ku lay dugg te sopp la ku la sopp rek jooy sopp naa ko jërëjëf dénk naa la yàlla yonent bi sëñ Tuubaa amin yàlla ñu bokk sàmm amin amin na yàlla musal ci catu seetaane yal na yàlla lafal ci catu seetaane fàttali lan fàttali leen géey képp ku lay déglu boole naa ko si ñaani géey amin jërëjëf géey jërëjëf waaye mat na ngi koy ñaan jërëjëf géey jërëjëf Mbaye ñu koy gërëm bu baax a baax sunu yaay la marraine ñu koy gërëm Sud FM seen rajo le choix de la différence euh, gërëm nañu ko bu baax a baax ginnaaw moom itam dañuy dem euh, jëlaat yeneen auditeur ci 88 628 98 98 33 841 22 33 Sud FM seen rajo ñu jëlaat ki ci topp asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Sidi. waaw Mamadou Diop. maa ngi lay ziar bu baax. le correspondant de Tallel Lampi à New York. waaw le co ah ah, ñu ngi ziar bu wér di ziar ñuy dégg ñëpp. jaajëf waay naka foofu. di leen waay rek ñu ngi yàlla. mi ngi cool fine nice. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi cool maa ngi maa ngi nuyu suñu maman boobu jël léegi. maman maman Khady Mbaye yëpp. maman Khady Mbaye waaw ñu ngi leen di ziar ñun yëpp. Mhm. di ziare gars yi fi jot a jaar yëpp di leen baalu dëgg la. waaw Sidi Sidi Sidi Sidi man li ma doon li ma doon waxaatee rek mooy. nanu xam ne nanu xam ne gis nga xam nga xam nga xam nga ñun ñëpp ñu ngi woote jàmm ñu ngi woote jàmm wax dëgg yàlla ca bu ñu sañoon suñu réew moomu jàmm rek moom moo fi am. Mhm. mais li ngay wax di ko wax di ko waxaat mooy jàmm mënul am fu dëgg amul. Hmm. mënul nekk bu fa amee du fa yàgg. waaw. président Macky Sall lii muy def nii teguñu ko ci yoon gis nga ministre de l'intérieur dégg naa moom moo def demande pour mboolem ñi nga xam ne dañoo ñëwoon ci manifestation yi jox police ak gendarmerie pour ñu fekk leen seen biir kër jàpp leen loolu ndogal loolu ne man am na ci ñu ma déggee ñoo xam ne wax nañu ci ministre de l'intérieur la bàyyi ko nañu bàyyi yooyu ñuy def nit ñi fekk seen kër di leen jàpp di leen torturer di leen sonal pour xoxatal leen pour bu ëllëgee bu fi lu mel ni amati kenn du génn ci kër gi kenn du génn si mbedd mi nanu teg loolu ci suuf nanu xam ne askan yi doole yi leen jox nekku ne dañ leen jox doole yi pour ñu wël di ko di ko xeex askan bi li may laaj appel nag maa ngi ñaan président Ousmane Sonko ak mboolem opposition yi ñi nga xam ne ay opposants lañ yëpp nañu génnaat woo nañu génnaat wax parce que population bi nit ñu génnoon ci mbedd mi di manifester wu ñoom président Ousmane Sonko boo xëy na nit ñi amoon nañu lu leen metti mais nag li li tax affaire bi am ci moom la bàyyi ko moom moom moo tax dëgg-dëgg xëy na nit ñi mën a génn ba ba ba ba ba mettalul seenu naqar génn def li ñuy jot a def kon moom itamit ne génnaat naqarlu arrestation yi nga xam ne moom la police ak gendarmerie di ko jàpp ca nekku ne Dakar lañ ko defee ci mboolem région yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi fekk nit ñi seen biir kër di leen jàpp di leen yóbbu président Sall nag fekkee nag population bi dañoo woote jàmm keroog keroog bu Ousmane Sonko di génn suur boobu bu neexoon waa Sénégal moom du fanaan pale du fanaan pale kon mënuñoo nekk kon di bëgg jàmm ba pare moom muy yabalaat police ak ministre de bi da war a dàq mais ñoom ñoom ñoom dafa mel ñoom man xaw ma man président bi xaw ma day wax ci kaw di def ci suuf xaw ma nu demee nii mais yaa ngi woote jàmm say ministre yabal ay yabal police ak gendarmerie ñu fekk niñ seen biir kenn du leen jàpp pourquoi nit ñaa ngi am ah nit ñi nga am lu leen naqare àllub neen xiif baa ngi fi am ñàkkum liggéey baa ngi fi am telatuñu réew mi ñoom nekk fii rek fa séeni fee nekk daal nekk ay buur yoo xam ne comme ku ku opposition yi maa ngi leen di ñaan ñoom ñi xam ne ay opposant lañ ñëpp nañu génnaat dajawaat ak président Ousmane Sonko naqarlu lii ba ca kanamu yàlla nañu bàyyi nit ñu jàppoon ci manifestation yi wala buñ ko defut nañ ko deelawaat ci mbedd mi fu yam neex dafa am loo xam ne nii sii gis nga jàmm mënul am fu dëgg amul nañu waxante dëgg dëgg koy wax jàmm mënul am fu dëgg amul président da ngay am yërëmaane sa askan bu ñu bu ñu sonnee wax nga comprendre leen yëm leen dimbale yëm jàppale mais nag président boo xam ne ni yow dóor ak tëj rek nga xam mais loolu dañ yore askan bi ñoom liñ yor yëpp askan bi moom lañ ko jox du seen xaalis lañ yor xaalis bi ñu yor moomuñu ko askan bee ko moom ba ñu nekk président amu kenn ko mën a may benn cinq mille francs bu mag mënuñu a maye dërëm tey ñu nekk président ñu dénk la àll réew mi ñu di ko saax saaxee ba pare bëgg ne kenn ku fi ah, mais loolu jaaduwul gis nga moo tax politiciens yi des fois da nga leen di mere parce que am na ay politiciens yoo xam ne nii politique gu ngir intérêt Sénégal xaalis jox la ko nga neexal sab ceeb wala mu defa wala mu nomale benn poste balaa yàgg nga nekk ay nga nekk millionnaire wala milliardaire loolu moo war a jeex Sénégal politicien da ngaa war a am sa métier am sa jom am sa fulla am sa fayda di dundal sa njaboot am sa métier man cee liggéey dundal sa bopp ak sa njaboot mais bu fekkee nit ki da ci boo xam ne yow da ngay la moom ñu koy gërëm bu baax a baax moom a du Diop di woote Amérique correspondant Talen làmp yi ca New York yéen a ngi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence ñu dem maxee pose musicale ànd ak ndongoloo mu Serigne Fallou mu woyal ñu bàyyi mbéyen Serigne Fallou borom kas rajab ñu ànd ak yéen ci Sud FM seen rajo après pose musicale bi alaaji fallu alaaji fallu alaaji fallu yi alaaji fallu alaaji fallu mooy falfale Mbàkke bàyyi soxna gaaw boo jaaxle moo ca gaaw mooy falfale Mbàkke ndey bu soob baay Mbàkke li réew mi taamu nan leen ko faale mooy maam Faalu Laay sëñ Faalu benn yoon sëñ Faalu ñaari yoon ba ñett ba ñeent ba juróom ñaari yoon Fallou Laye laay laay maam Cheikh li ma bëgg doon géwalu sëriñ be di ko way di ko jiin di ko gañ ba ba may sàngoo suuf see tas du gàntu ku ko ñaan ku ko ñaan mu may la kookoy maam Fàllu Laay mooy baayu baayu seex mooy baayu aafiya mooy baayu sëñ mooy maam Fàllu Laay mooy maami sëñ Asis Abo sëñ Moustapha Mbacke yaa baax soxna sëy mooy seen jigéen way naa seexu naa yi bala ay so waaw waaw waaw waay li ma bëgg a doon sang bee di ko way di ko jiin di ko gañ ba ba may sangoo suuf see Mbacke rawatina man mi nga xam ni maam da daan wéy seen maam sëriñ Abdourahman Mbacké Balla ay sa yaa baax i baay yaa baax i baay Mbacké Abdourahman Mbacké Sëriñ Saali wooy sa baay baaraay sa baay maam Fallu Laaye doomi yaayu looke man ma bëgg a doon doon géwélu di la way di la jiine 2005 la génn àdduna ndongolo li ko li mu doon ñaan ca way wa naan yàlla naay woy Serigne fàllu ba ni may sàngoo suuf yàlla defal na ko ko 1975 la juddu di ndongolo euh, premier album mi ngi ko génne ci euh, atum 2001 euh, alors 2005 mu génn àdduna def lu am solo ci musique bi lu gàtt waaye lu am solo ki muy way di Serigne Fallou Mbacké nekk ñaareelu xalifa Serigne Touba. di ki nga xamante ni mi ngi judd 1888 ca Daaru Salaam 27 juin génn àdduna le 6 août 1968 euh, ca Touba nekkoon koo xamante ni moo eggale jumaa ji def liggéey bu rëy rëy ci liggéey yoonu murit ndax bi muy toog ci jal bi am 1945 xam nga ne boobu la ñu jógee ci guerre mondiale bi ndax 39 euh, 45 ku ne xam na ko. diggante boobu nag réew mi métti lool métti lool ndax jamono yi sëñ Modou Moustapha fekkoon na euh, jamono àdduna toll ci métti buur métti métti métti ndax ci diggante euh, ñaari guerre mondiale yi moom ci la nekkee xalif général di sëñ Modou Moustapha waaye bi sëñ Fallou ñëwee en 1945 ba 68 bi mu fiy jógee euh, mujj na daal Touba moom gars yi nee na mbir mi mujjoon naa neex sëñ Fallou daa ñëw rek lépp neex. jubóog yàlla jubóog sunu borom ba lu mu ñaan yàlla def ko. yàlla nañu yàlla tax si barkeem Sénégal li mu am ci ay mag yu baax bari na macha allah yàlla ñu yàlla dimbali kàttanal ñu ba ñu mën a topp lañ ñu jàngal ak lañ ñuy digal jërëjëf ndongolo yàlla na ko yàlla yërëm moom itam te xaare ko aljana ñu jëlaat auditeurs yi ñuy déglu xam ngeen ni Kazu Rajab bi ñu ciy ziar ak màggal euh, ñëpp ñëpp tey ñaan Sénégal jàmm dellu si fi ak dal ak yokkute bu baax a baax ci jullit yeeg ci chrétien yeeg ci ñëpp ñëpp ñëpp euh, Sénégal neex asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakatu Sidi. waaw Gassama. Oh, yee yàgg naa ci laaj nag amul problème. waaw waaw dëgg la ñu ngi ciy jégalu nag. bisimilah ñu ngi ciy ñu ngi ciy jégalu bu baax waaw. gannaaw bi ma la nuyoo. yaakaar naa ne patriote lan la. Hmm? mooy bëgg sa réew. wallaay ndeysaan. ok Macky sàll waru ñoo gën a bëgg senegal man li ma wax toujours Sénégal moo tax may wax. dëgg la. président Macky Sall ñoo gën a bëgg Sénégal. président Sonko waruñoo gën a bëgg Sénégal. Mhm. ñi woote ci rajo bii bëri nañu. Mhm. fii ma nekk lii ma chargé quatre nii. Mhm. nee naa la cinq dollars kilo suukar ñaat lay jaar. six cent francs am na ñoo xamante ni ñu ngi doon toog ci koona yi marché yooyu ñu toj. ñoo ngi ma miskin yi. dañ doon xëy ñii ñiy dox di dow di di yàq ñooñu mënees na mais ña toogoon di xëy nit wommat leen ñu ñëw toog ci koona ci supermarché di tàllal seen loxo ak ñi nga xam dañ doon dox. ñëw ba ci ak station toog di tallal seen loxo ñu gënuñu leen fekkee patriote du wees lu sa réew am man damay toog fi dégg ci news ay ay journal ay réew yu am problème mais waa réew dañuy jóg ñoom seen bopp di ket di yóbbante waa réew ma di leen jàppale bu ñu gën ci Sall bu ñu gën a doon patriote li ma wax toujours Sénégal ñun ñëpp moo ñu ñor ku ci taxaw di wax Sénégal moo la ñi lu ñu am fa lañ ko jëmee ku ci nekk yaa ngi tege sa say mbokk ak ñeen loo mor ak loo mënul kon mbokk lii ci moomu ko kii kii euh, opposant mi moomu ko ñun ñoo ko moom lu ci waay moon koor gaa ngi ñëw cinq dollars fii du fi dara dii dollars de final mais kooku kilo suukar nit moom na ko am ñaari kilo suukar nga tegu mille francs ci loxoom yaakaar naa ni kooku dina jàppale ñëpp te ñu wàññi loxo wax bi xool patriote du toog di critiquer sa ñàkk ak sax xam-xam loo ci am da koy def ci réew ma nga cosaanoo ñu ngi woote si groupe bi daf nga ci sax nañu def lu waay moom yow ku ci amul sa numéro la laaj sa numéro ku ci amul sa coordonnée la laaj sa coordonnée muy five dala muy ten dala lu ñu am ñu daal sa loxo nga jënd ko kilo suukar mbaa ñaari kilo suukar yaa xam ca jàkk ba ngay dem yaa am foo dem nga ni leen lii samay mbokk ñoo la ko jàpp ñoo leen ko jàppale loolu mooy suma contribution ci wax ci wax ji dañu yërëm nit ñi dama xewoon mucc ak mucc la yàlla ñu ko yàlla defal Gassama ma ngay wootee euh, Chicago Sud FM seen rajo ñu dem euh, jëleen jëlandiwaat yeneen auditeur ci 88 628 98 98 tàlleen lamp yi fépp nga koy dégloo ci àdduna asalaamaaleykum. salaamaaleykum. mon frère ma ñëwaat quoi. Diop waaw bisimilah. Hmm. alors euh, di wax na rek problème bi mooy mar problème Macky Sall. gis nga la fa hmm. yàqu yëpp dañu xool def li di cause bi ba loolu yàq kon lépp lu ñu war a fay bu dee Auchan lam képp ku fi yàqule état nga war def ba plainte mu fay la loolu mooy yoon parce que bu ñu tegoon réew mi ci yoon. kon nit ñi duñu frustré wu bay manifester et puis privé bi ñuy privé nit ñi seen liberté di mbubb woo Covid bi nañ ko baax Covid bi Amérique la ëppee Europe la ëppee mais kenn privé ñu suñu liberté ku bëgg a marche da ngay marche ñu encadré la parce que li ñuy déployé pour tere marche benn oto rek bu policier mën naa ko encadré marche Sénégal yi civilisé nañu ñu marche wax li leen naqari bu ko defee jàmm rek di am mais tant yaa ngi nit ñi yaa ngi privé nit ñi seen seen seen seen liberté di def ay couvre foo xam ne couvre foo tàppale la pour pour neutraliser benn opposant yàgg yàgg yàlla dalay wan boppam rek Macky Sall la ñu war a waxal mu respecté constitution bi bàyyi lim constitution bi muy jalgati moom la ñu war a waxal maa ngi wax opposant yépp nag nit ñu nañu booloo faire face parce que kii bàyyiwul parce que dafa yaakaar ne réew mi da ko doon la ci ay waajuram fàtte ne lañ koo faloon na teg réew mi ci yoon teg réew bu gis nga réew bu dëgg amee rek ñëppay am jàmm réew nag bu dë boo ko tegulee ci yoon nag di jalgati constitution bi di def lu la neex foqati pouvoiru assemblée pour mën a neutraliser nit ñi mais lépp lu am yawa nit ñi nag ku ci nekk la ngay def si réew du doo fi nekk di ko wax ci rajo bi nit ñaa ngi def li ñuy def mais set set kuy def jeerul ngeen naan damay maa ngi def lii maa ngi def lii ku bëgg a defal Sénégal rek defal Sénégal kooku amul benn problème mais liy wax ji mooy Macky Sall mi nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi di def lu ko neex nañu wax ak moom parce que jàmm ji ci loxaam la nekk bu doxalee jàmm ñëpp am jàmm bu deful jàmm nag peuple bi dina def face parce que réew moo gis mu tegu ci yoon dafa am révolution dégg nga révolution française dégg révolution euh, américaine yi dañoo rayante ba nga xamante ne réew mi képp ku fi ñëw da nga koy teg ci yoon gis nga Trump bi mu nekk États-Unis bu doon bu doon réewu Afrique yi day jalgati constitution bi dootu te du fa jóge mais constitution yu solide yooyu moo tax mënul jalgati day dem par force comme ni ko Obama waxoon rek naan l'Afrique n'a kon Macky Sall la ñu war a waxal mu teg réew mi ci yoon bu bëggee jàmm am traque yi muy traqué nit ñi nag na ko baax opposition bi nañu préparé wu faire face parce que kii bàyyeegul lu mu ko jaral na leen ko jaral pour réew mi tegu ci yoon. mais mais euh, Diop Diop man oui. mais Diop xam nga situation bi ñu toll nii. defe naa ni. Euh, waaw lu ko apaiser ak lu ko indi jàmm indiwaale ay solution defe naa ni mooy gën ñuy waxee ak yenn yenn ton bi ak yenn. yenn xëcc yi mais ci loxo Macky la nekk. non xaaral xaaral tuuti rek. xam nga lu tax ma wax la loolu. parce que tey ni nii ngay wax nii ko ko ki ñàkk doomam wala ki ñàkk rakkam wala magam wala ki nga xamante ni toj nañ boppam wala dagg nañu loxoom wala yàq nañu matériel wala taal nañu këram defe naa ne buy dégg discours bi du ko arrangé te ñun ñi nga xam ñoo di sénégalais itam lii arrangé wuñu kon naka la ñaa def ba jàmm dellu si dans le bon sens mais également pour que kenn ku nekk jëfe ko également nañu bàyyi nit ñi abarkalake joxante loxo am na fii ñëpp ñu jàppoon ñu dem mu joxante loxo nu ko Abdoulaye defoon ak jamono naka euh, Abdou Diouf defoon moo ko Abdoulaye Wade saa mm-hmm. yi jamonoom mm-hmm. ba xëcc ko mu dugg bu fekkee jàmm dong moo koy taxaw jóg mm-hmm. mais tant que mi di leen di jëli te fekk yow ñi da ñu indi problème bi jàppoo leen muy sa gars yi nga xamante ñoo indi complot mu tas ne du ma bàyyi ak milice milice yi la ñuy ñuy raxaloo di di rayaate ma ne nañ waxante dëgg jàmm ji Macky Sall moo koy bu neexee suba suba suba suba coow dootul am mais tant que mi ngi mi ngi nag di fekk ni ñu naan dafa leen di attaqué nag ñi ñoo def li ñoo def lii coow jàmm du man a am te il faut que qu'on reste mobilisé pour faire face. jërëjëf euh, ñu koy gërëm bu baax a baax euh, ma nga dëkk ca Italie di Diop Italie ñu ngi lay gërëm bu baax a baax moo Gassama Gassama ak euh, gasamaa nga Amérique. ñu koy gërëm dégg ngeen euh, du Diop correspondant Adja Khady mbay la marraine Adja Aminta Dieng itam dégg ngeen leen kooku di Ablaye Ndiaye ak euh, Mamadou Ndoye ci Amérique Djibril Fall ak PCA ca London euh, El Hadji Ale Mbeng Alaaji Malick Sall ak Ahmed Ngiraan gri Bordeaux itam di lutteur ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Sud FM seen rajo tàlle lamp yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam fii di PCA. PCA na def. bu baax si bi maa ngi nuyu tonton Malick. waaw. di nuyu tonton Mayler. di mhm. Thiès. Mhm. di nuyu suñu kilifa yi suñu bàjjen yi suñu tata yi fi jàll yëpp maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp. Mhm. mais si di xam nga est xam nga ne Sénégal ñaari dëkk la tane ci àdduna bi en matière de de de de travail. Syrie. ak euh, Burkina Faso. Guinée ak Burkina Faso. Syrie Syrie. Syrie. Syrie ak Burkina ñun ci ñi nga xam ne dañuy dañuy joxe liggéey ñaari dëkk yooyu lañu ñu tane ci àdduna bi. àdduna bi yëpp yëpp yëpp. Euh, vérifier ko si di. dëgg la. ñaari dëkk yooyu lañu ñu tane kon xam nga problème am na. yaa problème kay. voilà donc léegi xam nga lan euh, mooy solution bi man boog ci sama gis-gis bu gàtt. Hmm. peut-être que je me trompe mais gis nga euh, immigration bi nga xamee ne que nii dañ koy def di ñëw Europe dañ ko war a def contraire li ñu tëj dëkk bi immigré yi diaspora bi ñu ñibbisi. ñu yombalal ñu création d'entreprise ñu indi suñu expérience ubbi ay entreprise bokk ko ak suñu ay frères ak suñu ay sœurs parce que li ñuy jël di ko jox chinois yi di ko jox indiens yi di ko jox ñeneen ak jeneen nañ ko jox doomu réew mi ñu liggéey ci sii di man loolu laa gis mhm. ba pare problème bi mooy que ne gis nga euh, actuellement nii sii di pour affaire bi mu mën a régler wu réellement hmm. problème bi dafa dip ba nga xamee ne que nii mooy loolu c'est c'est au plus haut niveau que ça doit se loolu rek mooy mën a indi jàmm parce que ñoom ñëpp ils se connaissent entre eux hmm. ñoom ñëpp xamante nañu ku nekk li nga def xam nga ko kan moo ko def ñoom xam nañ ko ci seen biir donc de grâce man damay ñaanaat encore une fois nañu delloowaat ci réew mi jàmm hmm. nañu indiwaat ci réew mi jàmm nañu indiwaat ci réew mi jàmm te gouvernement bi ñu dindi ko fii ministre de l'intérieur préfet procureur de la république ñoom ñëpp foog ñu wàcc. loolu rek moo mën a apaiser xol yi fi mu toll nii parce que dañ leen a mhm. dañ leen a te ñoom ñi nga xamee ne que ni ñoom ñëpp quitté woon navire bi ngir yàlla de grâce ñu dimbali ñu ñu may ñu jàmm parce que ñun jàmm rek la ñu soxla nañu bàyyi plateau télé yi émission yi rajo yi ñuy dem di ñu bëgg di ñu sonal daal. Mhm. waaw maa ngi jégalu bu baax nag. ñu ngi lay jégal mais boo mënee garder ligne ba bi garder ligne bi. ok garde ligne bi yéen ngi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence seen émission tàlleen lamp yi. yi. seen émission taal leen lamp yi Ablaye Ndiaye cosaan jërëjëf ñu dem jëlandiwaat ñaari auditeur boole leen ci ligne bi ñu mën a waxtaan boole leen bu baax a baax asalaamaaleykum ñaar ngeen na ngeen def. waaw waaleykum salaam wa gëm gëm sa bopp. maa ngi delloo ziar nag kookal la gëm sa bopp. ah gëm naa dem naa sama bopp waaye ah, <laughs> am na kuy wax am na keneen kuy wax ci suuf. Ah, du gëm sa bopp maa bàyyi kon dafa dem kon dafa dem Babacar eggalil dafa te gëm sa bopp laa tegoon moo nekk ci suuf ah, Babacar Ba soppee si Gueye ñu ngi ziar maa ngi lay delloo ziar bu baax Babacar waaw comme ni tey wax rek dama la lool maa la raw maa la raw maa la raw jabot yëpp leen ñaanal jàmm bi nag dem waaye ñu ngi ñaan rek comme ni waaw waaw waaw ñu ngi leen koy ñaanale ngeen dem ba am télé. amiin amiin yàlla mën na ko yàlla mën na ko yàlla amiin yàlla mën na ko. waaw. baa yaa ngi si jàmm. jàmm bu baax alhamdulilah. naka Amerika. waaw Amerika mi ngi fi rek de. jaajëf waay time <laughs> amul toog amul taxaw. nit ñi nit ñi nit ñi wut wut rek la ñuy tàllu wut wut rek. Eh, wallahi wallahi mais mais gars yi léegi wut wutin bi wutin bi itam yéeme na de lu bari ci àdduna wutin bee koy indi de. ah lay la wutin bi rek. wutin bi rek. Hmm? waaye surtout de am na am na am na bunti yoo xamante ne suñ gouvernement yi buñ ci buñ buñ ci hmm. yaakaar naa ne dana ubbi bunt yu bëree bëri ndax gis nga ko mécanicien yi dafa dox fii nii. Hmm. te lépp lépp politique lay doon rek. dëgg la. dëgg la lépp politique la rek. la loo bëgg daal ci beneen réew bu ne bu laan réew loo bëgg ci moom. Hmm. politique nga koy doxalee rek. dëgg la bu ko ak askan yu bari dinañ mën a gis seen bopp. ci hmm, hmm, ci daal ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy sàññi suñu njiitu réew bi mu bàyyee ko nga xamante ne ni képp ko am métier rek mën a génn ci biti liggéey. xam nga Babacar. loolu de waaw. dama ne woon euh, commune bu nekk commune bu nekk ci Sénégal. waaw. waaw commune bu nekk da ngay dagg benn espace boo xam ni. da koy def zone zone artisanale. waaw maanaam commune bu nekk ci biir Sénégal benn commune bu nekk. da ngay dagg benn zone boo xam ni zone artisanale fa la fala la fa yi di dajee électriciens yi fala ñuy nekk tôliers yi fa la ñuy nekk mu nekk zone boo xam ni dañ koy encadrer defar ko d'une manière ko dinañ mën a dinañ mën a organiser ba ba ba ba ba ba mën a xayma répertorier. ñaata ouvrier ñoo fa nekk. bu ñu leen doon jàppale tey day day gaaw su boobaa dina dinañ bàyyi occupation anarchique bi nga xam ne moo am dans la voie publique dina dakk ba pare dina yomb également ñu répertorier leen mën leen defal li ñu bëgg pour mën leen a former également. waaw waaw waaw. waaw loolu bu ñu ko defoon dina gën a yomb de. loolu kay bu ñu ko defoon dina gën a yomb maanaam dal politique bi daal ah en tout cas yow mii day wax dëgg yàlla bëgg na ñu président réew mi bàyyee parce que ko jàpp ak ñun daal xel yi ngay xel yi ngay xel mi nga am nii bu ñu seetloon tey borom euh, ki jiite réew mi jokkoo di ak yow daal. Hmm. allo. waaw yow rek laay déglu kay. waaw xam naa damaa yàgg ci ligne bi nag. ah ñu ngi jégalu de ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu bu baax a baax. waaw mais garaawut ah noonu la baaxee noonu la baaxee <laughs> so léegi na ngi nuyoo soxna soxna yi jàll ci at bi yëpp ñu ngi dégg seen waxtaan. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw ak Baye Alé Mbeg itam. dëgg la. rek wér ak dëgg la waaw di wax président bi rek xam nga comme dëgg muy jàppal xale yi. Mm-hmm. daal bu ma sañoon daal day bàyyi affaire ba muy jeex. Mm-hmm. dafa yàgg ci ligne bi wax na dëgg dafa yàgg ci ligne bi ñu ngi koy jéggalu baax a baax Babacar Ba. PCA taal leen lamp yi ñu ngi koy gërëm Sud FM seen rajo le choix de la différence jaajëf lan koy wax waa Amérique yëpp ñu ngi leen di nuyoo ko jaajëfal ñu dem xool beneen auditeur ci 88 628 98 98 33 841 22 33 ñaar ngeen ci ligne bi ñu dégloonte ngeen waxtaan kenn ki dem na euh, ki ci topp kan la. Diouf normal. Diouf normal am na ko bokkal ligne bi boo nee dégg rek ma. ma paas la ko Diouf normal. waaw. waaw nakay tey. sant rek. am na ko bokkal ligne bi nuyu ko. ki ma bokkal ligne bi kan la maa ngi lay saare. allo. asalaamaaleykum. waaleykum la. mbokk mi ñu ngi la. ñu uh, New York. New York. ndax waaw waaw mais grand dégguñu la bu baax de. waaw. ñoo ngi lay maa ngi lay fay kàddu gi moom lan déggul bu baax. waaw dégguñu ko ah. de. des na de des na de. yaa ngi dégg. waaw waxal ñu bës bouton rek. dama dama dama dama yaakaar naa yeewoogul. ah allo yaa ngi dégg léegi. waa c'est bon yow la kan. waaw ma ne damay leb tur bi ma ngi woote fii New York. waaw dama bëggoon bokk ci wax. ñi ngi ñi ngi lay dégg ñi ngi lay dégg. waa si dama bëgg mbokk yi xam ne amul amul benn réew boo xam ne bii bëgg nga mu baax te mbir yi teguñu ko ci yoon. boo jàddee yoon donte doomu président bi koo mën a doon dañ laa war a yóbbu ci yoon gis nga fii manifeste yi fi amoon ñu ci bokkoon ñëpp. kuñ ci xam ne ñu ngi lay ñu ngi seet ñu ngi ñu ngi ñu xool ci télé bi képp kuñ ci xam ne dañ la jàpp Sénégal amul amul kenn koo xam ne kii war nga def lu mel ni dem ci bitigu jàmbur yàqal ko yàqal toj doo oto jàmbur yi ñu xam xàmmee la gis la ci télé bi xàmmee la ba pare ñu nañ ko bàyyi dañ bàyyi loolu affaire yi pour mën a doon boo wàccee yoon dañ la war a teg ci yoon mooy tax réew mi jëm kanam am na bi moom dëgg la euh, man ànd naa ci ne ak kumba ndey kumba am ndey kumba amul ndey am na ci loolu moom dëgg la looloo waral yenn yi. waaye gis nga affaire bi am. Sénégal Macky Sall ndaw ñu koy dóor loolu ñëpp daal jàppal tëjal rek lañ ko wax. dóoral tëjal rek ñoom ñëpp ñëpp ci laal lu may dimbali Macky Sall rek mu jàmm tuuti. waaye dóoral tëjal rek. man aw ma benn ah? aw ma benn. ba mu toogee ba léegi yéen a koy dóorloo di ko tëjloo. ba léegi ndam amu ci. du ngeen ko may jaamu tuuti mu dal. ah. ña toogul seen kër doon naan attaaya wala. te yéen ñu koy dóorloo ñëpp da ngeen di. Diouf Diouf Diouf déglu ko tuddi déglu ko tuddi après nga ñëw nga jël. loolu baaxul réew dañ koy teg ci yoon. ku wàcc ci yoon ñu teg la ci yoon doomu président nga wala koo mën a bokk. mooy dëgg mooy yoon na si si bi na yemale loolu d'accord nañ ci loolu moo war a am sax mooy yoon. boo gisee ñi met loolu la. si si bi dafay dafa doxal. kumba am ndey kumba amul ndey waaye nag amaa ñi ñuy jàpp moom dañoo def lu tax ñu jàpp moom waaye bu ku deful ak kenn du la jàpp nañu bàyyi ñu ngi ci àll bi mais ñu ñu def ban jàpp ku ko def woon fii ñu jàpp la kenn werantiwu kenn werantiwu kon nag nañu nañu nañu xam ne Sénégal ñun ko bokk bu ñu bëggee mu baax dañuy moytu saytu ne yàlla mu baax amul benn sens def benn nit bu ko gis sama waay di jël alalam di fa demati Sénégal waaw may ma wax rek mujj bu ma wax tuuti boobu. waaw mujj bu jéem a jubóo. dafa mel ni dagg na. man xamal lu ma jaaxal Sidiki. Sidiki man xamal lu ma jaaxal. man Sall bi mu toogee ba léegi. du waral tëjal rek la ko gars yi wax. Euh. te ñi koy wax ñëpp dañuy nëbb seen tur. kenn du ci wax turam. waaw man yi. te Macky Sall ba nëgëri amagu ci ndam. nan bàyyi loolu. nan ko bàyyi nañ dalal Macky Sall. yow Macky Sall boo ko xoolee ba nekk day mer gars ko dolli mer te bu xasee ba mer lu mu néew néew dina mat weer wala mu <laughs> waaw bu guuxee lex yi bala lex yi rees dina mat weer. <laughs> bàyyee eh. eh ah? yow suñu njiitu réew ngay waxal nag baal safari ngay ah, def. ah non man ba. non non non non du ma nangu loolu suñu njiitu réew ngay waxal. man njiital APR laay njiitu réew ngay waxal. non kon article huit. mani. waaw Diouf Diouf yow itam xoolal bul yàq jàng yi. <laughs> waaw dégg nga li ma. Sidi. Macky Sall maa ko moom. waaw <laughs> ah, sa sa xamu ko ciy buuru sa de. man maay buur bi xam na ko sax. ah xam na ko. Ah, en tout cas am na sa jarbaat ca wetam de. ah am na sa jarbaat ca wetam de. <laughs> sa benn jarbaat a ngi ci wetam waaw gis naa maa ngi koy ngi lay fay ñi ngi lay déglu de ak ak sama xarit boobu euh, nekk New Jersey. waaw Ndoye Ndoye. ak Diop Italie maa ngi leen di nuyu. jaajëf. ak ak ak ak correspondant taal leen lamp yi. Mamadou waaw. ñu ngi lay fay. Ah, kii itam sama xa sama xarit boobu ne nekk nekk Amérique Gassama maa ngi koy nuyu. jaajëf. xam nga man li tax ma fonk ko. Ah. man sama Macky Sall mii. Macky Sall mii ay waajuram sa samay maam lañ nekkaloo Fatick Gassama Gassama yooyu nekk Fatick. Ah. samay maam lañ. dëgg la samay maam la. dëgg la xam nga séeréer séeréer yi ak gasama gasama yi dañu ko jaxasoo. Mhm. te li ma lay wax nii boo tey boo boo duggoon boo duggoon tey booru ñoom dëkku Tanor Dieng yooyu. Mhm. ba xool sant ya fa nekk ah. Mhm. sant yi ci bëri mag ñoom ay mbokk la dañoo jaxasoo. Sénégal ñëpp benn la. dëgg la waaw man li may ñaan li may ñaan Sénégal yi nanu nanu jàpp ci yàlla bàyyi mag xale mi ñuy dóorloo tëjal dóoral tëjal ba mu toogee ba léegi. ñu ngi dóor a tëj mais nag Diouf Diouf. waaw xam lan moo ma jaaxal ci sénégalais yi. waaw dañuy bëgg am na ci du ñëpp ah, mais am na ci ñoo xam dañoo bëgg yoon. waaw te kenn du dóor kenn kenn du jàpp kenn. waaw. xam nga mënoo bëgg yoon te te te doo jàpp nit. ah du waa ji moo ni moo fay ni ñaari luwaa luwaa ñi ànd ak moom ak ñi àndul ak moom ak ñaar ak tonte yi wax kon léegi fa ana yoon. ana yoon mën ngaa jàpp Karim Wade jàpp Khalifa Sall ah jàpp euh, kii bërki démb ak ñeneen ak ñeneen ah lu leen neexee def leen ko ak yëpp kaw wax bi. di ko torturer ba doyal ni ko terroriste nga xëy ni ko nekkatoo ko mosoo ko nekk tribunal bàyyi ko yow tey nga jël nga nga jël say gaay ñi sàcc suñu milliards yi ñëpp leen amat nga jël leen dugal leen pare làq leen ci Ablaye Wade nga jiñ ko alal bu bari bari bari jàpp ko ah yore ay dossier ba atteeguñ ko nga jël ko nommé ko ministre boobu loolu ban réew la yoon ku ñuy topp di lay wër ñu nommé a ministre ana yoon lii mu wax te yàlla Macky Sall joxul cër sëriñ joxul cër kan lu ko neex lay def lu ko neex gars yi nan ragal yàlla nan bàyyi li muy def Macky Sall naan ko dóorul tëjal dóorul tëjal dóor na doonu tëj na ba doyal sunu doom yi ñu dee nañ ñu damm nañ na na bàyyi li muy def <laughs> ñu lay gërëm baax Diouf euh, Sud FM seen rajo ki ci topp noo def <laughs> allo Sidi oui maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu ma jiitu ñëpp euh, ci antenne bi. jërëjëf. Euh, notamment suñu jigéen ñi ak jaaxbaat yi woote so. suñu buggee mu leer rek. Mm. sama mbokk moomu ne capitaine Touré wax na complot bi leer na te fii comme taal leen yi te nañuy leer la ñu bëgg capitaine Touré musul wax ne complot dafay am. dëgg la de. musu ko wax. biñ ko ko laajee dafa ne mënumaa wax ne complot li am ba des mooy hmm. euh, Sonko yàlla na ko yàlla lafal cat amin dafa am ñoo xam ne même sax comme ñu ne dëkk bi dafa am ñu mer profito ci affaire Sonko hmm. noonu la amee bi mu amee fuite ci procès verbaux yi nit yi tamit dañuy liggéey pour seet njombare bii fan la jóge hmm. procès verbal qui enquête ka ko mu koy jox mu koy signé ak gendarme wala policier yi ñuy jox PV ñuy defeere nit yi tribunal ak secrétariat wu procureur bu juge bi amee bu amee instruction ñëw ko ci juge bi greffier ba koy jot wala secrétaire am ñu ñooy fuiteloo ay procès-verbaux moom comme nekkoon nag ci enquête bi gars yi sub mais quand même man su ma nekk ci enquête bu ñu nee am na lu ci luubu dinañ ma soupçonné man maa ko yore ñu topp sama téléphone borné ko xool ne maa ngi wax ak ñoo xam ne ñu nga ca beneen wàll ba ba ñu jàppee ne wax jàpp wax naag Sidi Gueye te Sidi Gueye mooy avocat Sonko ñu gis ne ci Gueye woo na Pape Alé Niang mi taxawoon ne maa génne procès verbal yaa ngi nii donc yoon lañu seet man lan laa seq ak Sidi Gueye bi nga xam ne biir na ne xaritu Alé la loolu moo dal le capitaine Touré dafa woo nit nit kooku woo journaliste bi léegi nag nit yi di set digganteem ak ki mu woo lu lu lu fa nekk léegi nag loolu mu wax tamit tëgg la dañuy jël direction nationale du renseignement sénégalais teg ko sa kaw ñu lay topp subaak ngoon boo solidul dëgg dëgg dëgg da ngay craqué am na ñoo xam ne def nañ leen ko ci dëkk tubaab ñu xaru kii moom dañ ko topp mu tiit mu bàyyi mais problème bi mooy il a à s'expliquer ci yan relation la am ñii nga xam ne daanaka ñoo génne procès verbal bi ci biir tali bi. Hmm, ma ni loolu mooy wax bi mais musul wax ne complot dafa am waxu ko. Hmm. ma ne waxu ko euh, waaw xaaral ma wax benn wax. après allez-y allez-y allez-y jeexul. beneen bi mooy comme lu sunu mbokk yooyu wax dafa am fii ñuy liggéey ministère de l'intérieur liggéeyam mooy mu traqué ay ñu def dara. topp leen jàpp leen rassembler preuve yi ndagam am na ko jébbal leen yoon ministère de l'intérieur il faut mu def liggéeyam yoon nag mooy bàyyi wala mooy tëj mhm. dëkk bi li ma la ci waxoon démb moo fi am violence lu mu mës a régler du yàgg Sonko mi tey bu yàlla tuddee ne day nekk président de la république bu fekkee moo gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla def te mu gën ci moom it tamit mais bu fi toogee gis nga lii mu gis nii violence bi nga gis nii di nga ko gis léegi ci moom léegi léegi nga gis ko ci moom parce que violence mooy du régler solution bi muy indi du yàgg du yàgg lu violence régler du du yàgg yaa may dégg si bii waaw dafa mel ni euh, saa dafa dem mais ñu ngi koy jégalu baax a baax ñu jël ki ci topp ci Sud FM seen rajo mënoon na euh, ñu gën a yaatal émission bi gën a yaatal waxtaan wi ndax euh, xam ngeen ni Sénégal ak ni mu mel Sénégal ak fi ñu toll dañu bëgg ay nit yoo xam ne dañuy waxtaan di indil réew mi njariñ di indil réew mi waa njariñ waa réew mi njariñ loolu nag pour mu am il faut que ñu waxante li fi nekk waaye waxante loo xamante ni day day fekk. ñu teg ko ci dëgg teg ko ci li nga xamante ni moo mooy tegu ci euh, loi yeeg réglement yi waaye on ne veut pas une chose et son contraire noo am euh, tu ne peux pas avoir une chose et son contraire euh, bëgg benn bëgg ni nan woote yoon ba pare bu ñu jàppee nit nga ne bu ñu ko jàpp nag moom ah ça pose problème bu fekkee nit ki dafa def lu ñu ko jàppee nag bu ñu ko waree jàpp dañ koy jàpp wax dëgg yàlla loolu mooy yoon kon day jëlaat téléphone bi te Sénégal itam am na benn affaire boo xam ne nañ ko bàyyi xel sénégalais yu bëri fuite de cerveau yi dafa bëri borom xam-xam yu bëri ñi ngi bàyyi tey réew mi di dem ci yeneen i réew ba di fa am sax nationalité te ñu bu leen jëloon tey euh, jox leen gëdd ci biir réew mi dinañ fi am lu bare bari dinañ liggéeyal réew mi servir Sénégal ñu jël benn auditeur asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, Sidi naka boobu. man la man la Ali. Ali maa ngi ziar Ali. na nga def Ali Ali Ali na nga def Diop. maa ngi fi maa ngi fi alhamdulilah donc yow avant tout dama bëggoon euh, remercier la déjà. et puis un témoignage aussi si ci sa liggéey quoi. donc ça fait des années qu'on écoute ton émission et depuis depuis fu ñu mën ci nekk nag que ça soit au Canada en France donc on t'a toujours suivi et c'est vraiment avec une grande fierté quand même. Euh, ñuy am des comme ça la démocratie les libertés et surtout aussi liy defar jikko yi. Mhm. ñu di ko waxtaanee parce que Sénégal fu ñu mënti nekk. Mhm. suñu Sénégal la ñun. la donc euh, certainement musuma euh, intervenir ci benn émission. dëgg la encore que ça soit à la télé à la radio ou quoi que ce soit. Mhm. mais lépp lu gis rek dafay am lu ko waral en fait. te tey li tax ma woote c'est surtout la situation du pays en fait. Euh, j'ai été très peiné même euh, ba tey si ngoon un de mes partenaires woo ma en Allemagne. Hmm. en allemand. Hmm. Euh, di ma expliquer parce qu'on avait imaginé déjà un projet pour mu waroon ñëw semaine bii nii ñu ñu liggéey si. Hmm. il a fallu ñu avorter loolu si volu delta yi ñu yu ñu yu ñu yu ñu annulé. loolu c'est une chose parmi tant d'autres. mais gis nga Sidi. il faut ñu ñamee aussi di waxante dëgg. xam nga des fois yi am na benn genre adage bu ñuy wax naan boo bëggee kii jooy noppi da nga jëkk a wax da ngay wax ak kii yor yàq di door ba noppi ni ko bàyyil waaw voilà ni ko bàyyil ba noppi hmm. après nga doo wax mais mu neex mu naqari en hmm. fait hmm. on vit dans un pays où la justice est à deux vitesses malheureusement je suis désolé de le dire et la démocratie elle ne se négocie pas la liberté elle ne se négocie pas elle s'arrache je suis désolé de le dire je suis un homme de paix et je n'inviterai jamais am na loo ci xam. Mhm. ñun ci diine ak jàng ak ak ak suñu doole ci la ñu yàggee. Mhm. mais gis nga am na fu bu sa dëkk soxlaa dëgg. Mhm. wallahi la azim ça fait plus d'une semaine man j'ai ma jambe qui était immobilisée mais jour manifestation j'étais obligé d'y aller. Mmh. mais quand tu vois deux jeunes qui brandissent le drapeau et qui sont atteints à bout portant par des policiers. man, ma famille, il y a que des policiers dans ma famille. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, quand ces gens-là sont atteints à bout portant, que ni en fait, que ce soit au niveau de la presse et partout, que ce n'est pas suffisamment souligné, il faut comprendre aussi ceux qui ont un discours de non-apaisement aussi, de dire ils sont indignés et tant qu'encore il y a des détenus qui sont pris, qui sont encore euh, dans les prisons, quand on dit que des libertés humaines etc., mm-hmm. il va falloir que l'orient nous l'air encore. te dafa am loo xam ne aussi. il faut ñu ñeme ci wax. man j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour nos forces de défense et de sécurité notamment des des des des unités d'élite comme le GIGN et cetera mais suñu demee ba ñu gis ay ay je parle de fait je ne parle pas ma nekkuma ci ay mm-hmm. parti partisanerie ni quoi que ce soit. je mm-hmm. parle de fait suñu demee ba gis sur des vidéos qui ont fait le tour du monde un agent du GIGN ñu arrêté euh, garde du corps de, de Ousmane Sonko le gars il n'a euh, résisté nullement yëkkati ay le gars il ouvre une grenade il découpe une grenade il la met dans la chemise du gars. Mhm. mais mais on est dans quel pays. mais il faut que les gens sachent quand même c'est-à-dire gis nga ki nga jàkkaar lool. Mhm. kooku sécurité du liggéeyam. il faut comprendre que aussi c'est une personne qui est animée peut-être par la colère. Mhm. yoo xamoo waa ji lan la lan la lan la yeewoo yoo xamoo waa ji muy dund et puis il faut qu'on évite de dire oui c'est à cause du confinement et cetera ah non je suis désolé je l'accepterai pas parce que les Sénégalais ont été très dignes ils ont vécu ce ce ce confinement là dans l'endurance et la dignité te su continuer woon aussi danañ continuer parce que des situations ont été beaucoup plus plus périlleuses que ça les Sénégalais mënuñ ko. mais dafa am donc une cristallisation frustration yoo xam ni dañ ko gis gis ko gisaat ko gis li xew ci Karim Wade di gis li xew ci Khalifa Sall et cetera et cetera et aujourd'hui juste je vais en finir là avant de monopoliser la mm, parole mm, mm. bu ñu demee ba ni l'histoire des PV là en fait euh, euh, euh, war nañ a sanctionner mm-hmm. d'accord mais dafa am loo xam ni daf fi amoon te kenn waxu mm-hmm. mais les PV dans le cas de de mm-hmm. mais c'est sorti Dans le cas d'Idrissa Seck aussi. Dans le cas d'Idrissa Seck. Mm Je peux continuer encore dans le cas de Bougazeli. Mm Donc il faut arrêter. C'est-à-dire il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, situation de Dénéni, qu'on prenne un bouc émissaire et tout ça là. Et je suis désolé. Mmh. C'est-à-dire ce, ce, ce commandant-là, euh, euh, quel euh, que le commandant, euh, capitaine Touré du moins, mhm. quel que soit le moment du donne, il a été dans un corps d'élite. Il faut venir avec qui. Mmh. J'ai envie le Sénégal à réfléchir sur ça. Mhm. la dem gis nga gendarmerie même ñi mu contraindre ñu t ñu téye leen comme le cas de Ousmane Sonko quand il est sorti qu'est-ce qu'il a dit. da leen la remercier il a voué le professionnalisme de notre gendarmerie. Mm-hmm. Mm-hmm. kon donc il faudrait pas non plus que les Sénégalais ñenn ñi parce que am nañ ci benn posture bu ñu nekk instant bii nii la situation ne les arrange plus te ñoom ñoo féetee doole ñu jéem a manipuler gis nga suñu suñu suñu diggante ak suñu borom rek moo tax ñuy wax. parce que yàlla subhaanahu wa taala dafa am lu mu ñu teg suñu dodd ñun jullit buñ ko gisee. muy situation ak lu mu mënti mel ñu waxee ci noonu. mooy bu ñu gisee situation fekk ca ci ci ci ci safaanu jàmm la jëm lañu ko fajee suñu loxo si yeddihi loxo bi nag c'est pas nécessairement ci vas contraindre tu vas tu vas di nga da nga yàq wala dangay ngay de non non non c'est-à-dire hmm. agir par l'acte soo ko mënul nga wax ci au moins fii lisaani yi boo demee nag ba nga xam ne yow ñaar yooyu yëpp mënoo ci benn nga defee ko fii xalbi yi naan na la metti au moins. Mm-hmm. mais xam nga ci qui s'est ce qui s'est passé quand tu opprimes une un un un un peuple ou des gens c'est l'effet inverse mooy mooy kii mooy maanaam da leen di metti ñu ko. Mm-hmm. ñu bëgg ci wax ñu cristalliser ko kon ñooñu bu ñu demee ba fi yeddi yi dafay nekk musiba donc il faut anticiper dans l'effet inverse. gis nga yàlla lépp lu mu lu mu def rek njàngale moo ci nekk. Mhm. mais dafay fekk nag nit ñi ñu ngi ànd ak seen xel ànd ak dal pour mën dans des situations pareilles à chaque fois que ça soit au niveau des Sénégalais euh, euh, euh, sama compatriotes yi que ça soit au niveau des forces de sécurité de défense et de sécurité que ça soit aussi suñu responsables yi suñu suñu dirigeants yi ñu xam ne gis nga dëkk bi benn dëkk la tu as vu ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Mhm. et c'est triste bu ñu demee ba premiers ministres sont décédés nit ñi commencé di tamante dem. Mhm. c'est juste pour te dire donc ay du yem ci bopp boroom. Mhm. te il ne faut pas non plus su fekkee ni dirigeants yi tey tey si je vais en finir là pour ne pas monopoliser la parole. Mhm. bu fekkee ni dañu bëgg rek jàmm dellu si. on n'a qu'à libérer les Guy on n'a qu'à libérer. ay euh, euh, euh, les partisans de Ousmane Sonko là et consorts c'est-à-dire tu ne peux pas sous sous sous sous prétexte que nit ki dafa nekk non suñu bëggee nekk ci logique gu apaisement nañu wàññi yenn yenn yenn wax yi ñuy wax ci réseaux sociaux yi nañu wàññi aussi répression yu métti yi loolu daal si di laa bëggoon très rapidement rek intervenir si loolu. macha allah di ñaan aussi le chef de l'État gis nga ni boo jiitee très sérieusement euh, yow yaay am yërmande ci nit voilà te bul ànd ak fierté mukk ak rëy ba nii ah non su ma defee dañ naan dama deltu gannaaw euh, loolu dama koy delloo ci xisa yonent yàlla Souleymane ak xorondom ba je pense que c'est suffisant. Mm-hmm. nga gis ni yàlla wanee foofu kër nit mën na la yàlla mën na la may lépp doole et tout ça là lu tuuti lu ndaw loo xam ne yàlla dina def xikma ci moom mu yaay la quoi. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. merci beaucoup Sud FM toujours copié jamais égalé jaajëf Ali Diop. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax 98.5 le choix de la différence seen émission tàll lamp yi la ñuy déglu euh, ñu mën a continuer ak auditeurs yi fu ñu mën a nekk ginnaaw Ali Diop xam nga moom li ma marqué ci moom suma rak la li ma marqué ci moom dafa bëri. Euh, dafa nekk bitim réew di jàng nekk xale jàng nekk France di jàng bay jàng-jàng mu kawee moo xam ne ci wàllu aviation yi ak euh, lu jëm ci wàllu ay fusée ak yooyu mu nekk bitim réew di jàng ba télévision euh, réew ya mu nekkoon di ko di ko wone ci seeni tele su génnee dañ koy signaloo ay orthographe di ko wax signal ma fii di ko won tellement di ko laaj ndax yow nit ku ñuul nga quoi ndax yow fan nga dëkk ci àdduna mu leen Sénégal alors bi mu nekkee di jàng bitim réew di jàng nekk bitim réew ba war a pare njàngam tubaab bi ni ko da ngay ñëw toog Séné da ngay ñëw toog sunu réew mam ñu may la nationalité wutal la liggéey bi gën a kawe liggéey boo bëgg proposé ko ay salaire yoo xam ne doo ko dégg Sénégal ak avantage yëpp mu ne leen li ngeen ma may lépp baax na li ngeen may waxal lépp baax na mais ba may jàng senegal professeur yi ma doon jàngal sama samay sama xaalisuwaa réew ñoo leen fay pour ñu jàngal ma li ma indi fii dama bëgg a jàng pare pour servir sama réew mu nekk diggante Canada euh, fra Amérique France di jaabante fu ne mu dem fa àdduna bi yëpp macha allah yal yàlla may ko wér defal ko képp kuy sénégalais mais dafa am benn li tax ma wax loolu maa ngi doon wax léegi fuite de cerveau yi mais moom. il yu eu tant pas mal de propositions yoo xam ni ay réew dañ koy woo ni ko kaay ñu may la nationalité nga liggéeyal sunu réew mais ñu defal la avantage boo bëgg defal la lu ne et mu bañ ñu topp ko ba sonn mu ñëw bi mu ñëwee Sénégal dañu cëpp Sénégal autorité yi gis ko toog mu waxtaan ak ñoom waru moon sax wax loolu fii bi waxtaan ak ñoom ba war a dugg ci liggéey bi gars yi commencé di ko xeex te commencé gulan ah, dañu gis rek CVM mu ñu gis CV macha allah mu nekk xale boo xam ni macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat gars yi commencé di ko xeex mu toog ay ati ati at nekk ci situation bu critique au Sénégal xoolal loolu nga nekk ci diggante boo xam ni metti gi mu metti wallaahi mën nga dem fële am fa ay millions et des millions nga préféré yow delloo xaalis boobu bàyyi xoolal ngor googu. ci xale xale bu ndaw mu ni ma grand ma ne ko naam mu ni ma am naa possibilité am lu ne bitim réew voici les propositions qu'on m'a faites mais je préfère venir au Sénégal et travailler pour le Sénégal sama savoir fair ma won ko sama waa réew su may servir ma servir sama réew su ma bëggee dem bitim réew ma dem bitim réew comme sénégalais bu jógee fii di dem bitim réew pour ñëwaat xam nga loolu man booy bi daf ma loolu dafa daf ma jommal ba léegi te loolu bëri na sénégalais yu mu dal mais age euh, bi mu ko dalee ak ni mu ko dalee ak avantage yi mu am bu doon am na ñoom bu doon ñoom ñu bañ kon nag euh, Sénégal ak président de la république bu nit ñi bàyyee lu mel noonu te du moom rek bari na ci moroom euh, mën nañ xam nañ ci ñu bëree bari mais comme moo ñu gën a jege moom la ñu gën a xam mu leer ñu naññ mu bàyyi ay yitteem bàyyi alalam foofu bàyyi léppam foofu ñëw pour servir Sénégal bi mu ñëwee cëpp ñu commencé koo xeex commencé koo créer ay problèmes yu dul jeex mu muñ rek des ak yàlla xam ni moom dañu moom yàllaay joxe yàllaay xañee nit deful dara moroomam waaw nekk ci li mu nekk rek ba yàlla def tey macha allah mi ngi ci mi ngi dund Sénégal su bëggee dem bitim réew dem bitim réew demaat ñëw mais moom Sénégal la préféré liggéeyal patriotisme boobu nag tant que sénégalais yi bëriwul ci sénégalais yi dina yo dina jafe ñu avancer parce que am réew pour mu développer dëgg dañuy ñi fi nekk ñooy gën na ñun mën nañ ko développer mën nañu ko avancer xam-xam bi buñ ko bu ñu waree dem bitim réew jàngi ko ñu jàngi ko bu ñu waree toog jàng ko fii jàng ko waaye bu ñu demee bay joxe itam ay post ñu jox ñu ko mérito te loolu dafa dal euh, ñu baree bari ci Sénégal te loolu mooy tax sénégalais yu bëri découragé par exemple bi mu nee cëpp ñëw toog benn at liggéeyul ñu ko commencé ko déposer affaire ñu gis ko commencé koo xeex ñaari at ñetti at ñeenti mu toog di muñ rek bu ko neexoon ni fes bàyyi li dem yoonam mais dañuy non non naa gérer na metti ma gérer na metti ma muñ ko na metti ma des ak yàlla ba egsi fi mu egsi tey jii kon nag euh, loolu euh, dañ ko ko doon dañ ko doon wax dañ ko ci doon wax rek euh, c'est une affaire privée mais exemple bu ñu mën a joxe la teg ko ci kanamu sénégalais yi pour sénégalais yi jël ci Euh, xalaat jël ci xam-xam jël ci également euh, leçon boo xam ni euh, wane ni benn doomu Sénégal jàng na ba nekk ci cadre yi gën a mag bokk ci ñi nga xamante ni ci wàll yu mu féete ña fa gënoon a ay la bokk ay réew yooyu woo ko tàllal ko nationalité bool proposé ko xaalis bu bari mu bañ ni moom bi muy jàng Sénégal professeurs yi ko doon jàngal xaalisu réew mi lañ leen fayee kon moom buy servir xaalisu waa réewam lay servir voilà loolu lu am solo la. ñu ngi lay féliciter di la encourager di féliciter tous les autres auditeurs de Taal Leen Lamp yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa ñëwaat. Ndoye waaw de retour. ngi kontaan si waajur yi nga léegi am na solo trop. solo mais bari na ay gars Sénégal yu bari nga xam ni kaa boobu même kaa mm-hmm. mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek am na ñoo xam ñu muñ. ñu ñoo xam ne dañuy ñëw toog investir wala ñooy am say diplôme yu ñëw pour liggéey. gars yi di la mettre les bâtons sur les roues da ngay obligé delluwaat ça dépend rek quoi. Hmm. rafetlu aussi wax ne bon maa ngi dégg benn waay bu nekk États-Unis dafa tudd nëbbu turam di wax manifestation yi am Amérique ba gars yi traqué maanaam ñooñu doon kii c'est différent parce que ñooñu dañ dañ dem si Sénat bi. bien Sénat bi di di menacer mort le maanaam le vice président la donc pour ñu pendre ko. ak euh, femme bi nekkoon ci kii euh, house bi leen menacé de mort quoi menacé de mort yooyu rek moo tax ñu ñu ñu traqué ñu doon dugg ci maanaam Sénat bi te différent que ñu doon ñu doon te magasin yi daj euh, maanaam yenn magasin yi mag yi nekk fii parce que magasin dañoo am assurance moo tax gars yi duñ sax jéem a focus quoi pour nga jéem a jàpp ak yooyu parce que yooyu yooyu yooyu c'est pas la peine dañoo bàyyi rek quoi affaire yaa may bu ñu bu ñu dajee magasin après kenn traquewul kenn. kenn traquewul kenn si côté boobu quoi côté yi man George Floyd bu fa dañ far nga George Floyd. black la ñu newoon black lives matter bi aussi jàppal leen ak espagnol yi. def ci magasin yi def nañu ko dëkk yëpp ah New York City California Washington Philadelphia New Jersey fépp dañ ko def. tey bu tey finalement ñoom ils sont ils sont assurés am na assurance. waaye dafay bon. maa ngi dégg nag sa gaayen boobu comme chaque fois day ñëw rek ndeysaan di yi foog ñu ko yaa may dégg maa ngi dégg dëgg dëgg suñu loi bopp suñu aada bopp suñu diine bopp lépp nekk ci biir parce que bi diine la ak seen aada dafa am li ñu tubaab yi indi doon tegal ñu ko ba léegi si la ñu nekk bi di di di jiwoo te loolu boo xoolee loi yi moom moom mu di wax sax ba léegi am na loi yoo xam ne du la mën définir waaye bu la waxee benn article indi la benn calcul te ku ci am sa frère mu gaañu wala nga am sa ñu jàpp doo ñaanal doonal gars jàpp leen jàpp leen jàpp leen yooyu dañ ko war a la quoi esprit xaw a soxor la quoi dañuy dañuy yërëm ñi xam ne dañ leen di jàpp dañuy leen di jàpp boo xoolee étudiants yi ñu jàpp étudiants yi la ñuy jàpp ah ñu ñu doon ñu doon ñu doon sàcc magasin yi non non non. li ñu jàpp mooy waa Pastef ak étudiants yi ñoom la ñuy traqué di leen jàppal benn benn dafa bu leen jàpp bañ jeex parti bi yàqu affaire bu loolu rek la ñu traqué dama dégg Sidi. waaw yow rek kay. dañuy dañuy traqué waa parti bi Pastef la ñuy traqué pour jéem a yàq parti waa ji te loolu mënuñu ko loolu ñu def yëpp dañuy tor seen rek Macky Macky Sall moo def mooy jubóo population bii bàyyi ñu naan ko jàppal bon aussi ñu daan wax si wax sa xalaat ah, mais ana ñooñu man dañoo déglu ma yem dañoo daw. gis gis moo tax Macky Sall war na jàng ci lii ngi daan tàgg si rajo yi naan ko non dóoral xasal dóoral am ñooy tey bu parole am na ñëpp ñëpp waaf télévision bi faam di di di yuuxu di wax am ñooy ñëpp a daw bàyyi ko luy seul avec sa ministre la waaw donc war na affaire boo da ci war a jàng xam ne Sénégalais yi ku ñuy xotti tubéy ñëpp a lay xaar mm-hmm. donc ñu doon topp ñëpp di ko tàgg ci saxaat yi ak ci télévision yi li ñu bëggoon mooy seen dërëwam doo nga ñu bëggoon saa ko ceeb biir màkk yeeg yooyu moo tax gars yi di ko tàgg ak yooyu mais Sénégalais yi dafa yoo Sénégal gëmuñu dara waaw. jërëjëf Ndoye euh, ñu koy gërëm bu baax a baax gërëm leen yéen itam ci ànd beeg déglu bi Sud FM seen rajo le choix de la différence incha allah rabi su ma fi jógee euh, tey jii dinaa ñëwaat samedi ñu ànd ci émission euh, tàlleen lamp yi waaye samedi ci ngoon 14h ba 17h la ñuy ànd ci musique gu démb. dem mbégteeg bànneex doon leen ko présenté di tàlleen làmp yi euh, continuité tàlleen làmp yi dañ koy def ànd ceeg euh, groupe tàlleen làmp yi yëpp euh, des auditeurs yoo xam ni macha allah dañu bëgg li ñu nekk gis nañu ni ñu soppee Sidy liggéey ni ñu bëggee Sidy liggéey ni ñu bëggee Sud FM ni ñu bëggee tàlleen làmp yi kon nag di baalu ak ñëpp ak di leen jégglu di wax ni Sénégal fi mu toll nañu bàyyi xëccoo bi ñu bàyyi xeex bi nañu bàyyi xuloo bi nañu waxtaan ci dal nañu waxtaan ci defar réew mi te président defe naa lii xew nii ak li am ni lim ci mën a jànge bëri na waaye booy déglu booy lire communiqué euh, conseil des ministres yi ak xool ni askan wi ak ni xool ni gars yi di doxalee day mel ni am na ay wute ndax li tax mooy Euh, da ngay dégg ci conseil communiqué conseil des ministres ñu wax ay loo xam day neex lool ci askan wi waaye bu ñu demee ba wala boo demee ba xool ko ci askan wi da nga naan est-ce que réaliser nañ ko est-ce que liñ waxoon am na ak amul loolu chaque jour yaa ngi du dute bañ na ko ba léegi boo gars yi boo duggoon ci kër yi heure conseil des ministres jot wala président di wax nga jàpp RTS kër yi ko jàpp bariwul te loolu rek déjà euh, défaut la. Euh, ndax chaque fois dañ lay won ñoom lu baax rek lañ lay bëgg di woon dëgg la lu baax la ñëpp soxla waaye itam am benn affaire boo am ñi nekk ci réseau sociaux yi ak yenn télévision yenn médias yi nañu bàyyi di génne di filmer nit ku dee nañu bàyyi di filmer nit ku faatu nañu bàyyi di partager ay vidéo ay nit ku faatu am na vidéo yu am na vidéo yoo xam ne kenn du ko partager bu la ko nit envoyé sax da nga war a supprimer envoi bi yemale ko fa prochaine d'envoi bi du continuer mais nit envoyé la yenn vidéo yi du ma tàyyi di ko wax baaxul baaxul yenn yenn yenn scènes yi boo demoon am na ci dëkk yoo xam ne boo demoon tey dara am fa accident médias yi ñëw di ko filmer ko woon doo du la mës a woon nit ku dee ki mën nañ la woon nag ñu jël ko laxas ko teg ko ci barankaaru pompier wala ambulance di ko yóbbu mais quant won la chute euh, bi nit ku dee kii complètement ni non il est rarement man de yamaguma ci kon loolu war na tax ñu gën a defaraat suñu parce que nit dafa orma nit yàlla da ko ormaal nit dañ ko war a suturaal rawatina nit koo xam ne da doon dund yore ay tànkam di doxi di nekk ci ay soxlaam ak ay mbokkam ak lu ne mu génn àdduna ñu war ko suturaal war ko nëbb ngeen ni ko fàng ci réseaux sociaux yi ni ko fàng ci médias yi loolu aussi nekk lu rafet ñi koy def nan ko bàyyi am na télévision yu nekk Sénégal yu ko def yu ma gis moo tax ma ciy waxaat ni ak réseaux sociaux yi moom ñi koy def en général xamuñu dara ci affaire yi jànguñu wala jànguñu wàllu média mais ñun ñi nga xam ñoo nekk ci média yi am na ci loo xam ni waruñu koo def waruñu koo wax voilà ñu ngi leen di baal wax di leen baal di ñaan yàlla bokk ñu jéggal li des ci programme bi xam ngeen ko moom ngeen di daal di am léegi léegi ci su FM mu nekkoon seen émission taal leen lamp yi tous les mardis mercredi ak samedi minuit ba fajar la ñuy ànd di leen gërëm yéen ñëpp ñi bokk ci émission bi li des yéen ma ko gën a xam ñu dajawaat léegi léegi waaye samedi bu 14h jotee dina ànd ak yéen ci seen émission bu rëy bu mag boobu di ta musique démb. jàmm ak jàmm jàngeen jëf et bon suite des programmes sur la 98 point 5. daal leen lamp yee ndeysaan àll bi yaa na dañuy danda